Sen karo sorry Yang koy amee fii ci Proxi TV Sen karo sorry télé bu la jege di la wan sa Sen karo sorry saa su ne ñu ànd ci ak Sen karo sorry waxal waay deguma. dégguma Sen karo sorry yàgg nañ ma wax ni xam nga du sori ma bañ dafa làkku rek léegi am karo carrosserie yoon nañu teg ko ci code bi rek bab sa ko yëngal jëlal ma wan la yow job ñu savourer discipline si sa jox. asalaamaaleykum mbokk téléspectateur Proxi TV maa leen nuy nuyu di leen siyaar ku ci nekk sa tur sa sant di la fekk fu nga toog ne leen jàbb loxo seen mbokk seen xarit Babacar Fall mooy présenté seen émission seen carrosserie ñu leen di dalal di nuyu kilifa diine di leen ñaanal jàmm Sénégal yàlla na fi yàlla wàccee jàmm defal ko ñëpp euh, ñu amoon ñaari invité tey yoo xamante ne ñoom la ñu invité woon di waxtaan ci domaine d' la tey ñu ngi gën a xam euh, ci gën leen ràññee ci domaine d' automobile euh, ñu ngi dalal suñu premier invité ku nekk suñu ndeyjoor mu ngi tudd Mamadou Sy euh, ku nekk suñu càmmoñ ñu ngi koy char mu ngi tudd Mamadou Guèye ñu gën ko xam ci Guèye business tey ñoom lañ dalaloon fii ñu am waxtaan yu ñu war a waxtaan tey ci yaatu ci domaine d' automobile ñoom seen lu ñuy yëngu mu ngi gën a nekk ci côté parking automobile ci lu ñuy wax location vente ak oto yi nu muy joggé extérieur ba egsi fi bir Sénégal tay ci lañu fassiyéné fas yéene waxtaan xaaral dalal suñu gan Mamadou Sy ñu ngi lay ziar. Mm, Babacar Fall ñu ngi lay nuyu di la ziar. Mhm. di nuyu wa proxy mhm. TV. Mhm. di nuyu kilifa diiné ya kilifa aada yi. di ziar wa dëkk bi yëpp. di leen ñaanal jamu ci yalla def jamu ci réew mi. amiin Euh, problème yi am ci réew mi tamit ñi ñuy wax yàlla na ci yàlla def jàmm ba réew mi du tàkk mhm. euh, di jaale bokk yi jiitu yom yomal xiyaam ñu ngi leen di jaale ñu fi des tamit ñu ñaan yàlla bàyyi leen fi mhm. ci barki yonte bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. bisimilah amiin jërëjëf Mamadou euh, ñu daral Mamadou Gueye Mamadou ñu gën ko xam ci Gueye business Mamadou Gueye maa lay ziar di la daral ci sama plateau waaw Babacar ñu ngi lay dolli ziar bu baax a baax a baax di jiital euh, nuyoo ci suñu ñaari waajur yi mm-hmm. di leen ñaanal yàlla bàyyi leen suñu kanam ba lépp lu ñu séntu ci ñun rek mm-hmm. yàlla defal leen ko mm-hmm. di jiital tamit ci sama sëriñ sëriñ Abdou Karim Mbacke di ko ñaanal xama mu yàgg fi lool te bon di nuyu kilifa diine yëpp ak kilifa aada yi di nuyu sama mbokk yi nga xamante ni ñoom laa seqal business bi di leen ñaanal jàmm te di ko sàkk ñoom tamit ci ñoom quoi waaw di nuyu ñëpp di ziar ñëpp waaw. jërëjëf ah, ñu dugg ci waxtaan bi ah, Mamadou Sy waaye Mamadou Sy ah, ñu dem laaj si suñu premier question depuis kañ nga dugg ci liggéey bi wàllum jaayam oto vente location. Hmm. bon vente location jaayam oto. automobile Kër Sëriñ Fallou ñu ngi ci dugg pendant def na deux un an maximum ñu ci duggee ak léegi ñu ngi ci dugg deux mille deux mille deux mille dix huit ba fii nii ñu ngi ci nekk nekk ak Kër Massar ci rond point guy gi route de Jaxaay bi waaw boo romboo clinique Sëñ Saaliu foofu lañ nekk bon biñ ci nekkee ba léegi nag ñu ngi ci góor góorlu def vente location Euh, transport waaw ñu ngi si ñu daal di li mu laaj ñu koy def. voilà dëgg la ah, ak foofu noonu euh, ci côté euh, fu ngeen nekkee ni emplacement bi. Hmm. jaxaay yan jafe-jafe ngeen ñi gën a jànkonteel foofu noonu yan jafe-jafe ngeen xam ne yéen a ngi koy jànkonteel ci foofu noonu côté boobu noonu. bon foofu liñ fiy jànkonteel moo mun naa ne liñ fiy jànkonteel fi ñu pa positionné wu. Hmm. leneen lañ fiy jànkonteel bon mooy ndox. Hmm. bu nawet jotee daal. ndox mi moo ñuy sonal foofu. bon ndox mi moom daf ñu sonal foofu trop lay empêche suñu liggéey mboolem ñu ne ci allée boobu yëpp dañu am problème mu liggéey bu nawet jotee bon ñu ngi ci doon wax ci affaire assainissement bi président ñëw na fi ministre bi ñëw na fi ay maintes reprises di ci wax mais boobu léegi ñi ngi xaar gisaguñ dara à part ça bon ñu ngi ci jaamu daal part ça à part yéen a ngi ci jàmm euh, ak côté boobu noonu côté sécurité bi waaw parce que comme rue boobu noonu ak sécurité bi est-ce que côté boobu aussi tamit na ci côté sécurité bi foofu noonu waaw waaw waaw côté sécurité bi des na mhm. des na parce que boo ubbee instructure bu toll noonu mhm. yow waroo xaar sécurité état mhm. parce que yow yaa créé sa groupe teg fa sa ay employeur teg fa ay oto ay voleur yaa war a jël sa moom gardien teg ko fa di ko fay beneen bi des nag bon bëgg nañ tamit police bi tamit di def patrouille foofu. Mm-hmm. di circuler parce que ñoom ñooy gérer le bien public. Mm-hmm. ñoom ñooy sécuriser le bien public. Mm-hmm. kon bëgg nañ tamit ñu fay def patrouille. di traverser foofu. en dehors de gardien yi ñu fa teg. parce que gardien yi tamit ay gardien simple lañ yoo xamante ne bii. nekk ñu yor arme wala tey bu leen fa nit ñëwoon fekk bëgg leen néewal doole ñu am arme parce que amuñu euh, sañ-sañ boobu yor arme boobu. mais daal teg nañ fa ay gardiens yi ñu tollool mhm. pour sécuriser suñu alal yenn guddi gi tamit ñu jaar fa def ñu ñun defal suñu bopp patrouille mhm. xool ba tax gardien bi biñ fa teg mu mhm. ngi def liggéeyam au pas loolu daal moo fa nekk bon kaw tali bi tamit bëggoon nañu am fa ay doodaan parce que sog yi bari na fa maara day taali yi loolu la guddi gi passé rek barki biig rek am na sog bu métti bu fa am bon loolu yëpp ñàkk dóoraan moo ko waral mhm. bind nañ ñaan nañ mais boobu ba léegi ñi ngi xaar mhm. gisaguñ ko bëggoon nañ tamit ku ñu jàppale ci dóoraan yi foofu daal mhm, voilà macha allah loolu aussi tamit jar na taxaw. parce que kon côté doodaan yi aussi tamit ak insécurité bi. parce que gis naa ni côté éclairage bi sax dafa mel ni dafa xaw a manqué ci côté boobu noonu. waaw peut-être que la nuit boo fa jaaree éclairage bi doon na loo xamante ne manqué na ci côté boobu. waaw kooku tamit ñuy lancer appel aussi tamit autorités yi nekk ci dëkk bi nekk fi aussi tamit yor suñu kaaraange aussi tamit ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax a gën a bàyyi xel aussi tamit gars yi. parce que dafa nekk ñoo xamante ne aussi tamit ay sénégalais lañ ñoo xamante ne dañoo jugee feneen ak feneen ñëw def seen investissement fii demuñu beneen pays def ko fa ay doomi réew mi lañ fii lañ dëkk ci réew mi jël seen investissement def ci ak lépp luñ ci mën a jàpp aussi tamit autorités yi ci nekk dañ leen war a gën a dimbali gën leen jàppale ci côté boobu noonu aussi tamit ñoom ñu mën a sàmm seen alal ci côté boobu noonu voilà légui aussi euh, ñu gissone ni euh, côté bële na euh, fu ngeen nekk foofu nonu ci sen parking Serigne Fallou. Mhm. fu ngeen nekk giss nañu structure bu mag la. Mhm. structure bu mag la parce que mu melni que da ngeen def li wax location vente. Mhm. amna sax lu wax lavage carrosserie. structure bobu nonu ci ñaata nombre de personnes lañu xayma que ñoom ñoo fa nekk di fa liggéey. bon structure bobu bon exactement bu ma la waxee bu ma baña a lu mat 10 personnes ba 11 personnes ñu ne fa. ay employés ñu ne fa.

mais location yi ci structure bi nan lay demee ci location yi parce que location yi souvent ñu bëri gis nañ ni bari na jafe-jafe yoo xamante ne da koy jànkonteel ci côté location yi parce que am na ci ndaw yoo xamante ne dañuy yor seen permis bu ñu soxlaa dem loué bu ñuy ñëw day fekk bu ñu génnee oto bi oto bi génn na choqué na bu ñëwaatee aussi tamit yéenay wëlbati ko waat jëlaat seen alal di ci def yéen coté boobu noonu nan ngeen koy saytoo aussi tamit ci oto génn waaw côté boobu nuñ koy saytoo boo ñëwee tak parce que ñun ñu structure bi duñu du n'importe qui ñëw rek ñu jox la oto mhm. dañuy xool ku responsable mhm. ñu jox la mature mhm. ñu jox la oto du ñu luwee xale bu ndaw du ñu luwee koo xam ne xool nañ la doyoo ñu duñ la luwee booy luwee oto da ngay ñëw nga indi sa carte d' pièce d'identité ñu defal la contrat bi wax la ban type de nga soxla ñu wax la somme bi temps lañ koy luye parce que oto yi bokkuñu ñu wax la oto bu nekk liñ koy luyee journée auto bi génn ci àll bi ak temps bi muy def du bokk ak oto bi nga xam ne dafay nekk ci biir dëkk bi prix de location duñu du ñu yem voilà am na ay 4x4 am na ay 2x4 euh, ay particulier daal d'accord parce que xam nga bu njëkk tey dañu gisoon euh, location véhicule bu ñu ko naan def dafay am lu ñuy wax caution bu njëkk mën noonu laa gisoon ñu koy def day am caution même contrat bu amee day am caution boo xamante ne ko fay bàyyi pour en de pépin tey oto bi lépp lu ci mën di sëkk aussi bu loolu noonu amee tamit ci caution boobu la ñuy jël defaraat bu dolli di am tamit yow yaay dolli bu fekkente ne da ci yem keppit ñu jël sa xaalis delloo la ñoom ñu jël luñ ci war a def ndax côté boobu noonu ba tey ndax loolu moom mu ngi am ba tey suivi boobu bon ba mm-hmm. na ñu koy def mm-hmm. mais ñun suñu structure mm-hmm. duñu laaj caution li ñuy def bu observé da nga xool oto bi visité oto bi xool lu ci nekk ñu xam ne lii moo nekkoon ci oto bi sooy delloo ci oto bi noonu nga koy indee mais ci biir contrat bi dañ fiy def ne oto bi jox nañ la oto type de nangam matricule nangam nangam nangam defal la détails yëpp na la gis nga oto bi ni nga ko jëlee gasoil bi fii la tolloon boo ñëwee na delluwaat foofu temps de jour nga nga fay nombre de jours yi da ngay fay moom nombre de yi mhm. doo ko yóbbu oto bi mhm. dañuy récupérer sa carte mhm. ak sa permis def sa contrant nga signé nga yor photocopie ñu jël original bi denc foofu original bi denc foofu noonu waaw voilà léegi bu fekkente ne euh, personne bi ngeen duyee oto bi tey mu dem kenn ñaanu ko yàlla mu dem am ci ndog-ndog ci côté boobu noonu léegi bu wëlbatikoo egsi ak oto boobu noonu léegi ban côté ngeen di doxee ak moom ci wàllum oto bi comme am na jafe-jafe bu ñëpp ba ngeen koy loué oto bi lépp tout neuf la oto bi lépp a ngi normal loué ngeen ko mu dem am na ci jafe-jafe boo xam ne am na ndog bu ko dal ci diggante bi léegi ndog boobu noonu bu ñëwee yéen ban euh, ki ngeen ciy taxawee a waaw ndog boobu ni ñu ciy taxawee dogalu yàlla moom dogalu yàlla la rek kenn nu ci pexe yàlla ak dogalam mm-hmm. mais oto bi li la jox defal la contrat ne la nii nga ko jëlee soo koy ñëw lu ci yàqu yaa koy defar mm-hmm. bu ci ndog amee tamit bon tolérance mun na ci am mm-hmm. mais loolu ci suñ côté la ñun ñooy xool ne mun nañ toléré mënuñu toloore ñu ne la lii lañ la waxoon contrat bi yaa ko signé woon oto bi lii yàqu na ci demal nga defar ko mhm. na nañ la toloore tamit na la léegi dugalal nangam ñun tamit ñu participer nangam mhm. parce que kenn ku nekk li ngay liggéey ci ngay am ndog-ndog su ko defee ñu oyofal ko ñun ñëpp ay jullit lañ mhm. mais daal li gën a wóor daal dañuy jox koo xam ne kii leer nañ la doo doo màndi di dawal dinañ jox koo xamante ni bii du nekk xale boo xamante ni maturul duñ ko def dañuy xool ki mature ñu jox ko leer nañ ne kii du nekk ku jël alcool mhm. ñu jox ko oto bi mhm. parce que oto yi am na ci yoo xam ne suñ oto yi bopp yuñ moom la mhm. am na ci yoo xam ne ay oto yoo xamante ne bi suñ ay euh, euh, client ñoo ñu koy jox ñu gérer leen seen loolu moo tax am na loo xam ne yaa koy moom mën nga ko maye. mais am na loo xam ne borom oto bi moo koy moom mënu ko maye. moo koy moom mënu ko maye. voilà loolu leer na euh, Mamadou Sy maa ngi ñëwaat ci yow. léegi léegi jërëjëf Mamadou Gueye waaw ñu ngi siyaar bu wér-wér Gueye jaajëf waay di la dalal ci suñu plateau di kontaan am contentement carrément ci lu nga teew suñu plateau fii nii waaw euh, euh, parking Serigne Fallou toujours fa la ñuy resté parce que yéen ñaar ñii ñëpp ci parking boobu ngeen nekk mais domaine yi dafa bokkul ku ci nekk ak domaine boo xamante ne ci nga yëngu ci wàllu wàllu boobu noonu ñu ngi dugg léegi léegi suñu waxtaan ci côté location yi euh, oto souvent buy ñëw au niveau di buy jógee Europe di egsi fii Sénégal oto yi partage lay doon boo xamante ne ku ci nekk maanaam ñu nekk ci diaspora bi. ñi dañ fi am quelque oto ñi am fa quelque oto ngeen boole wala day doon benn personne boo xamante ne tey oto yooyu noonu yëpp moom moo koy moom wala dafa nekk oto yoo oto mbooloo hmm, maanaam uh, oto yi tey boo jëndee sa oto mu jóge Europe ñëw. Mhm. wala Canada wala États-Unis fu mën di doon. Mhm. bon bu yegsee Sénégal. Mhm. tey oto yi comme ni muy commencé ma comme ñun ñett. xamante wuñu léegi ki nga xamante ni moo nekk Canada moo ñuy jaay wala wala États-Unis wala fu mu mën di doon. Mm-hmm. moom mooy ut ay client am. Mm-hmm. bu utee ay client am man tey sama préfère. Mm-hmm. oto bu ñëwee man maa man sama oto bu ñëwee damay def yow sa bu ñëwee da ngay jaay kii oto bu ñëwee moom tamit. da koy jaay keneen wala keneen ak keneen. man sama bu ñëwee. buñ àndee dem port ba déboote def lép ba oto yi génn. voilà man sama oto comme location la bu ñëwee mën naa dem yóbbu sama parking teg. teg pour location. keneen ak keneen kii day jaay moom mu génnee otoom dem jaay kii day jaay keneen moom tamit kazaalika quoi léegi nag ci wàllu location yi comme li ngay wax location yi dafa bëri risque ñu bëri bàyyi nañ location ndax jafe-jafe yi ñu ciy am parce que da ngay louer sa oto mu génn ñu yàqal la ko oto bi def choc wala ñu mbëkkal ko fenn wala yooyu noonu te bu ñëwaatee boo amul sens dëgg dëgg dëgg client bi du la fay parce que du am lu mu la fayee du am parce que imaginer nga jël valeur cinq million wala quatre millions cinq cent jox ko nit mu yàqal la ko xam nga kooku fu muy jëlee quatre million cinq cent wala cinq millions yi lay fay mhm. dangay ngay jël sa oto jaay mhm. wala nga defaraat tegaat jaay mhm. ñun gis nañ ci lu ne man def naa location ba mu gi dama am mer bàyyi parce que gàllankoor yi ñu ciy am da ngay ñëw louer si oto ñu yàqal la ko nga dem jël sa oto jël dem jàpp si yàlla dem defaraat ñëw teg des fois nag am nañu ay clientèle yoo xamante ni moom yu yu responsable lañ. yu yu yu yu normal. Mm-hmm. ñoo xamante ni mën nañ yor sa oto deux ans. Mm-hmm. oto bi du xoosu du def dara. Mm-hmm. l' essentiel da ngay toog boo ñëwee ñu defal orange money. fay la ko par orange money. wa ilaa ñu ne la kaay jël sa xaalis. loolu moom bon gis nañ ko fi maintes fois. gis nañ fi ñoo xamante ni dañu jël sa oto presque trois mois. duñ la fay. am naa sama xarit boo xamante ni. Hmm. presque am na location boo xamante ni ba léegi ñu ngi koy topp. Hmm. deux ans yoo xamante ni presque def na deux millions. wallaay ba léegi kenn fayu. te lépp location la lépp location la. Hmm. nit kilifa moo koy jël. te oto bi ba doyal. ñëw indi la oto bi ngeen war a calculer mu ne la suma paree bindal la chèque wala nangam sangam xam nga. mooy loolu. léegi nag nga obligé jël sa oto téye. mën nga cee daw di topp duñ la fay. moom kay mi ngi noonu daal maanaam borom xolu muñ dëgg moo ko mën ak ku am jot waaw moo ko mën dëgg jafe-jafe boobu noonu mën naa ni du yéen kase yéen a ngi koy jàkkonteel parce que ñuy jaay oto yëpp ñuy def vente véhicule ñëpp jafe-jafe boobu dama gis ni ñoom ñëpp dañ dañ koy jànkonteel bokk na ci lu ñuy gën a kaas ci côté boobu noonu parce que tey euh, moo tax ma dem dugg waxtaan ak euh, ñaa léegi-léegi parce auto bu fekkante ne bu ñëk bu ñëk à l'époque lolo amone parce que ñun daan nañ lay auto jamono ñuy gëna a nekk xale mais daawuñu ko sax mën dañuy ñëw suñu benn grand frère ñëw fekk ko fofu ne ko grand dañoo bëgg lee auto légui bu ko défé côté caution bi sax dañu am nuñ koy gérer takalé ko pour mëna a bàyyi caution boobu noonu ñu jox ñu auto bi ñu mëna dem mais légui bo xolé légui affaire dafa yomb yomb bo xamantene manam amatul caution té aussi euh, bu fekké auto bo xamantene ne sa loxo la nekk nga jël auto bi loué ko par exemple mu ngi ko jël benn 4 jours bu dee oto bu ndaw la par exemple prix bi mu génnee joxe ko journée 30 000 par exemple léegi mu génne yàq ci oto bi loo xamante ne tamit valeur boobu noonu da koy ëpp trop trop trop est ce que léegi jotul yéen ngeen xoolaat beneen formule boo xamante ne tey ci location moom ngeen di jël mu nekk caution boo xamante ne moom ngeen di jël taxaw temb teg ko ku amul caution boobu noonu tey du ngeen ko loué oto pour mën a dem mhm. waaw li nga wax dëgg la mhm. parce que dafa am ñu yàq location mhm. ñi ko yàq mooy tey da ngay nekk toog sa bureau yor sa salaire liggéey macha allah nga gis ni location e diw de mi ngi def location mm-hmm. affaire yi dox na ci moom yow nga ñëw jënd say oto yow tamit mm-hmm. teg teg say location mm-hmm. amu kenn ku la koy léegi nag yow boo amee client nga dem woo client bi mu ñëw amoo du si am toppatoo yow doo am toppatoo say oto tey bu ñu la fayeen quinze mille sax journée quinze mille sax da ngay jël doo bañ man mi toog nga xamante ni lii mooy sama métier ma toog yor samay oto di gérer samay location normal man de ku ñëwul. Mhm. ku ñëw mhm. ma xool sa comportement. Mhm. bu ma neexoo rek du ma la luwee. te booy ñëw bu ñu waxantee cinq jours. cinq jours yooyu nga wax yi ñu waxante noonu. da koy teg si taabul bi da fay ba mu mat. ma luwee la man du ma joxe ah, du kenn du ma jox avance. kenn du ma jox tamit loo xamante ni matul. tant de jours ngay luwee da nga yëkkati xaalis bi yëpp teg. bu matee ma bind defal la décharge. dafal la jël papier yi ma soxla ci yow denc bàyyi la ak bi. bu dee nombre de mois yi nga koy jël. Mhm. chaque mois mën nga dugal temps. Mhm. ci bir mois yoy chaque mois da ngay indi auto bi. Mhm. bo ñëw ma def sama entretien man. may vidé ma lay defal lepp jox la nga dem. mais nak bon bo ñëw gis ben jeune bu melni man. bu ma ñëwee ne la location la bëgg nga jox ko sa auto ah ko xamanteni da la journée ñaata di waxale ak yow. ah man de bu dee man la duma ko def. parce que du ma sama alal xaalis mu cher bay bëgg dee ma jënd ko. nga ñëw di loyer auto di ma jox ay journée benn vingt mille wala yooyu naan ma am jàppal ci lii en attendant fii ak quelques jours ma ah. jox la wala yooyu loolu ku ko def timit da ngay taaral sa bopp loolu moom du liggéey da ngay taaral sa bopp waaw loolu moom du liggéey d'accord parce que bi aussi tamit xam nga nit euh, kenn du ko mënu ko juger ci apparence parce que nit ki tey dina ñëw wan la comportement boo xamante ne yow sa xel dina dal ci moom mais loolu question ko dëggu la nit ki moo mën a dëggu rek xam ni tamit nit la yow mi aussi tamit ñëw na nga luyee ko am yaakaar ci moom jël sa alal jox ko parce que valeur nga ko parce que tey bu journée bi tey yëkkati benn cent francs jox la valeur millions nga ko jox wala valeur millions moom moo am xelu ko ça veut dire que confiance ngay demee ci côté boobu confiance ngay ci côté kon tamit a aussi tamit quoi euh, ñu euh, mbokk yi dem euh, seetaan suñu rubrique woon nañ ci parking Serigne Fallou ñu dem xool lan lañ fa ñu dem ñëwaat à tout à l'heure gars Sen encaró, sorry. bon lay nuyu di la ziar di parking de fii moom parking euh, automobile automobile la lavage dañuy def lavage dañuy def dañuy jaay dañuy def location dañuy def lépp quoi lépp laal lu mu nekk ci mbiru oto daal dañu koy def fii waaw waaw dañuy defaale vidange dañuy jaay huile mais instant bi programmé nañ ko mais kii bi amagul quoi mais huile yi moom ñu ngi nii parce que ñu ngi ko ñu ngi exposé nii ku bëgg dañ lay jaay nga dem vidé ji le temps bu ko defee ñu ñu xool ci kanam ñu mën a ñu mën a am benn espace bu ñu def euh, finance bi bu ko defee ñu mën a ñu mën a xool leneen quoi. ok mais ñun nag suñu lavage boo ko tëgg parce que ñu boo xoolee muus bi ñoo nekk moom moo ne ci butéel bii nii dañ koy jënd ba vingt litres lay doon moom doo doo ko doo doo doo ko bomb da ngay da ngay da ngay def euh, mànd bi air boo ko defee nga nga muuse ko jërul bom da ngay bàyyi mu wàcc su waccé mom moy tax auto bi di set day génnewaat peinture auto bi da koy génnewaat parce que ñun duñu raxassé ay ay omo ay ay madar ay fa non non non parce que ñu lavage professionnel lañuy def lavage parce que ay produits rek lañ lañ am fi pour pour pour carrosserie auto yi pour ñu pour ñu mën baña xomat xam nga lolu da ci am solo parce que lavage bi bay da ngay gis dañuy am la mais duñu am matériel dañu am duñu am produit bi nga xamne mom la gaay yi di gën soxla mais ñu na dañu am produit bi parce que daf ñuy jaral parce que comme que moom dañ koo bëgg pour def ko fii dañuy am benn kii boo xam ne produit boo xam ne buñ ko defee client yi fu mu toll nii ku dem da ngay ñëwaat ku dem da ngay ñëwaat voilà loolu la. complet dañuy def championnage dañuy dindi chaise ba mu set gis oto bee dañ ko def dañ koy dindi ba mu set daal di dindi moquette bi defar lépp defaat ko mu nekk zéro kilomètre. bon location ça ne parce que location échange bi nii su fekkee oto bu ndaw la su fekkee biir Dakar da ngay am vingt cinq mille bu dee nag da ngay génn hors Dakar ay ay bon Mbour Thiès sax mën nañ ko négocier vingt cinq mille mais bu dee ay Saint-Louis ay kii ay trente mille la looy gën a dem daal ci gën a kawe muy muy muy gën a yokk quoi location bi gën a yokk ci oto bu ndaw bu dee oto bu mag trente mille la dëkk bi bu dee da ngay génn trente cinq mille la dañ koy jox rek mu dem bu dikkee ñu nees bi de oto buy jaay rek buy kii rek boo xam ne buñ dinañ ci mën a am dara mus dara rek dañ koy indi fii teg ko jaay ko waaw lépp la jaay venant venant da ngay am parfois da oto boo xam dangay day ñëw day ñëw bëgg ko mais day ñëw dugal bu dugalee léegi du da ngay da ngay da ngay wax ak moom mu jox la xaalis nga teg oto bi jaay ko complète génn sa xaalis waaw bu ko defee yooyu day yomb quoi parce que parfois am oto yomb nag day yomb soxla ñu koy mhm, normal non pour xanaa oto yi ñu wàññi dédouanement beeg affaire yi rek affaire yi moom port bi moom dafa cher dafa dafa métti quoi port bi moom dafa xaw a métti parce que da ngay jëlee sa oto Europe ñu indi ko fii xam nga nga bëgg ko dédouané ñu lay laaj ay lii ay laa nangam xam nga yooyu dafay xaw a métti quoi bu ñu ko yombaloon daal gars yi dañ mën a indi oto yi mën a mën a avancer quoi waaw ñu gën a ñëw voilà loolu la c'est

donc foofu laa mun a wax. Mhm. bon foofu boo defee commande bi dana day dure mhm. parce que bu ngay defee commande bi fi ngay jotee oto bi. Mhm. day def deux mois presque. da koy mat. wala deux mois yu manqué tuuti. donc bu ñëwee ci port bi jafe-jafe bi ñu fay am bon mun naa ne jafe-jafe la du jafe-jafe. parce que oto bi bu ñëwee il faut buy egsi dañ koy signaler. buñ bato bi dañ koy manifester foofu. yow fekk yow jot nga sa connaissement bi ak euh, release bi bu oto bi kii release bi nga dem def sa démarche dox sa mhm. euh, comment dirais sa transfert mhm. mu def kii bi avant boobu da ngay def débarquement bi mhm. débarquement bi day jël deux jours hmm? deux jours trois jours maximum bu paree ñu yóbbu ko ci euh, parking bi ñu koy dépôt foofu nga jox sa sa transfert moom mu def dem dem dawal dossier bi bon ci doyal dossier bi day def deux jours sans dépend nag des fois da nga dajeeg transfert boo xamante ne bu efficace lay doon mm-hmm. boo xam ne deux jours wala jour bi oto bi ñu koy débarqué sax bu fekkee teel nañ ko kii mm-hmm. jour bi ñuy débarqué oto bi mun nga jot sa oto mm-hmm. mais bu dee kii yooyu dafa am euh, transfert daf ci bëri ñoo xam ne ay courtier transfert lañ am ci ñoo xam ne ay transfert vrai lañ ñoom dañuy respecté seen liggéey da ci am ñoo xam ne nag du ma tudd tur mais am na si ñoo xam ne dañuy encaisse sa xaalis ba pare di la dawloo di collecté ay oto te ki collecté ki ki la ñëw fay la xaalisam ba mat nga collecté koo xam ne daf la avance matagul nga bëgg boole oto yi en global génne ko pour pour moyen de prix mm-hmm. kooku dangay ngay tardeel ki xam ne ti xaarul lool mm-hmm. jafe-jafe yooyu des fois dañ ko ci am mm-hmm. à loolu oto moom bu ñëwee temps bi muy def foog ñu déclaré ko dédouane dédouanement bi débarquement bi yooyu daal ak yenn saa yi nga jënd sa oto bu cher ñëw mu dugg ci port bi bon fi ñu koy yóbbu au lieu mu am surveillance bu baax. Mm-hmm. dañuy démonter yenn appareils yi. waaw mm-hmm. dañuy démonter yenn appareils yi doo xam koo koy laaj. Mm-hmm. doo koy xam koo koy laaj te oto bi nga xamante ne bi dafa ñëw mu fay li mu war a fay douane. fay débarquement am fay li mu war a fay lépp fay impôt yëpp mu fay ko. kooku société bi nga xam ne mooy yor oto boobu war na veillé ci oto jaamur ba nga xamante ne rajoom duñ ko sàcc kilaaruwam mhm. duñ ko jël pënam duñ ko jël mhm. ak yeneen ak yeneen mhm. dañ koy dañ koy dañ koy dégg loolu sax ci biir ñu ne oto yi balaa mi bu excès mois bi ñëw da gis oto bi lépp complet lay nekk monté ay jantu alu yi lépp ñëw mais yenn saa da ngay gis gendarmerie sax dañ koy obligé démonter ko sàcc yenn faar yi sàcc yenn bagages yi. dafay am mais loolu noonu euh, boîte de transit bu ngeen nekk moom moom moo war a saytu loolu wala au niveau port bi moom moo war a saytu loolu. non boîte de transit bi xam nga oto bi buñ ko débarqué ba pare. Hmm. dafa am benn maison de kii buñ koy yóbbu parking buñ koy yóbbu. boo xam ne am na holding Kër Xaadim ah, comment dire maa ngi jégalu holding am na holding Guèye. Hmm. am na yeneen structure hmm. mais structures yi dañuy mënante. Mhm. parce que ñoo xam ñoo xam ne seen liggéey dañ koy teg ci yoon. boo fa wàccee sa oto. Mhm. dara du ci manqué. Mhm. mais am na ñoo xam ne ñi ne ci biir structure bi ñoom ñooy def loolu. mais doo ko xam koo koy laaj. nga wax ñu la oto bi nii la ñëwee. or que oto bi ñëwewul noonu. jafe-jafe yooyu daal moom bëri na ci port bi trop. effectivement jante yooyu ngay wax noonu rajo yooyu liy jël rajo yi mooy jël jante yi. parce que oto bu ñu fay nit. jox ko caabi tëj oto jox la oto bi wàcc. ba ñëw ñu transit ko ba mu yegsi kooku oto boobu mënuñ ne la ci biir conteneur bi lañ tijj di jël luñ fay jël mm-hmm. donc fi oto bi wàccee diggante bi mu ko débarqué mm-hmm. ñu di ko yóbbu ci ci ci holding bi ci euh, parking bi muy war a dem mm-hmm. parqué foofu la tànk transfert bi di dawal dossier bi di dédouane di la jox bon bi nga war a enlever oto bi ci diggante boobu lay amee doo xam kan la nag yenn saa yi seen i borom ñoom dañuy taxaw seen oto bu ñuy débarqué ñu ànd ak ñoom seen oto ba fi ñu ko yóbbu ñu gaaru am na ñoo xam ne duñ am accès foofu dañuy ne auto bi wàcc na débarqué nañ ko yóbbu nañ ko fee nangam. Mm-hmm. boobaa diggante boobu nag li fi xew foofu lay xewee. foofu lay mais oto bi balaa muy ñëw maanaam nga saytu sa oto. ñu saytu lépp oto bi balaa muy ñëw saytu nga ko xam nga ni sa oto lépp tout est complet euh, mu jóge foofu noonu ñëw dem ba egsi fii nii mais ba nga fay lu nga war a fay libéré lépp ci port ba nga xamante ne desaloo too leen benn dërëm. Mm-hmm. ba sa oto war a génn mais bu fekkente ne am na yu yoo xamante ne di nga am remboursement wala loolu du non pour ci côté. port bi port bi kenn du la port bi kenn du la remboursé dara. Hmm. port moom li ñu war a jël dañ koy jël duñ la ci may virgule. Hmm. mais sa alal bu fa réeree yaay pert hmm, yaay perte yaay perte. gis ku ne sàcc nañ fa sama rajo mu dem déclaré ko ñu génn rajo bi fay ko wala bu mel noonu wala non non non gisuma ko. donc kon ñun ñooy fay la pot cassé. ñun ñooy jël suñu oto bu cher jënd ko. def ci suñu xaalis fay li ñu war a fay transport bateau bi mu ñëw ñu fay débarquement fay dédouanement. am na nu mu demee sax ci biir kii boobu noonu bu amee bu amee transfert bi bu amee retard sax. en kii yooyu yow yaa koy engagé. Euh, euh, magasinage bi yaa koy engagé. Mm-hmm. parce que da ciy am. da ciy am voilà loolu nag ñi nga xam ne mënuñu seen liggéey nekkuñ ay transfert kale ay courtier transfert la ñuy doon. Mm-hmm. Mm-hmm. dem engagé loo xam ne mënuñ ci génne oto. xam nga wala ñu engagé. te ñooñu yomb ñu ràññee. non ñu ràññee. waaw dañuy ñëw rek ne la transitaire la maa génne oto bi maa génne oto bi maa génne oto bi bon wan la ay oto yuñ génne ak ay connaissement yu ñu yor ak affaire yooyu mm-hmm. te yow am ñoo xam ne sama classe gi xam nga ne mënuñoo am amuñ fu ñuy vérifier ndax kii transitaire la ou pas mm-hmm. da koy jox rek par confiance mm-hmm. voilà loolu mais bu dee transitaire boo xamante ne la tey yor euh, structure am yor Nous avons dit que aussi reconnaître tous les papiers qu'il faut mais bu vous ne un la bi complet manquement mais côté est-ce que remboursement sais remboursement Je ne sais agence Je non sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je parce que Je ne sais pas. Je ne sais Je ne. pas. Je ne a pas. ne sais pas. Je ne parce que ne sais, pas. oto bi maanaam kenn mayu la ko da ko ah. jënd def ci lu ñu ci war a def fay lépp ba oto bi egsi fii nii tey nga ñëwaat tamit ci bureau transit yëkkatiwaat sa xaalis encore fayaat foofu noonu pour ñu génn la lu ñuy wax sa alal mu am yenn yoo xamante ne tamit manqué na ci léegi da jëlaat sa alal noonu après dem jëndaat yooyu noonu comme wala nga toogaat xaar commandé waat ko xam nga kooku tardement la ci yow mu jël sa alal def ko def sa financement a gàllankoor te da lay daaneel côté boobu bu fekkente ne da nga ñëw ci boîte transit fay fa sa xaalis lépp sa oto buy génn tout neuf la war a nekkaat. Mhm. ñoom war nañ la mën a garanti loolu. Mhm. oto bi buy wàcc buy débarqué ba keroog muy wàcc ñoom ñu taxaw assister ko. Mhm. bu egsee taf ñu assister oto bi. ba keroog muy wàcc ci port ba keroog ngay jot sa alal bu ko defee du am lenn lu ci manqué. xam nga tey sa parking par exemple tey parking bi boo ñëwee foofu noonu am oto boo xamante ne tey diw moo la ko jox da nga koy saytu. da nga koy saytu carrément même buy jógewaat ci loxoom tey di demaat ci moom lépp lu ci manqué yow di nga ko fay parce que loxo la ko teg boîte bi aussi tamit gis naa ni moom noonu la war a fonctionner noonu la war a ko defee ku ci nekk mën ci loolu dina ci am mën ci sa bopp loolu dina ci am am na ñoo xam ne hmm. seen liggéey dañ ko teg ci yoon hmm. boo leen joxee sa oto lu ci nekk lu ci manqué ñoom boo ñëwee dañ naan laan sa oto lu ci manqué la la ñoom ñoo koy fay hmm. mais la majeure de partie duñ la fay duñ sax jël engagement boobu ah oto bi nii lañ ko débarqué. Mm-hmm. nii lañ ko gisee tout court. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw te loolu day day day metti. day metti te oto boo xamante ni bii yaa ngi ko jënde ay 5 millions 6 millions. pendant 2 mois mu toog di xaar. mu ñëw nga fayaat ma fay bagage yi bagage yi dafa cher auto nouveau ki dafa nouvelle génération yi dafa cher am na ay matériel yo xamne ne bu ko xasse jël dang koy jënd ay 200000 300000 400000 ci benn auto bo xamne tok na 2 mois si nga di ci dakk benn 400000 wala benn 300000 jëlat 400000 jëlaat quatre cent hmm? yi bëgg ko ci defaat hmm. loolu loolu day metti voilà day metti voilà day metti hmm. parce que aussi tamit man damay wax li ci lu bare bari suñu état yi foog ñu gën ñu xel ñun investisseurs yi investisseurs yu bi ñu dëkk ci dëkk parce que investissement yëpp fii ngeen ko def ci dëkk bi ay ndaw réew mi ngeen jël ñoo xamante ñu ngi liggéey di ci tedd ngeen leen di te tey am na mooy lu nga expliqué am na oto yoo xamante ne tey nga dem jënd ko benn prix mhm. ñu toog ci dëkk bi lañ dëkk amuñ lu du Sénégal mm-hmm. daw génn dëkk bi te ñun ñoo gëm ne ñun ñoo war defar mm-hmm. dëkk bi mm-hmm. comme ñoo war a defar dëkk bi kenn ku ne la nga tollool ci moyen selon sa moyen ci ngay jéema a pour taxawal dara dëkk bi loolu lañ ko war a doxalee mbaa pas ay xeex ay topp politiciens yi nga xamante ni bi seen bopp rek lañ fi nekkal waaw mm, jël sa bakkan joxe ko tayle ko mm. politicien bi nga topp wala sa doom topp ko mm. du fa jëlee dara ku ci falu sa ay mbokk ngay ngay ngay ngay defar waaw boo fi gaañoo nga am fi handicapé benn jour la ñu ñëw seet si la Mhm. tey suba jeex na bu ñu lay jox benn somme mënul passé benn un million deux millions publier ko ba ñëpp xam ne jox nañ la ko mhm. ñu wan la ginnaaw pare nañ ci mhm. yow sa famille ñooy ñaar loolu moo tax ñun ñu créer structure bi. Mhm. pour jël ndaw yi nga xamante ne bi am nañ détermination. Mhm. ñu teg leen fa. Mhm. ñun sele yi ñuy fay salaire ñi ci gën a tuuti salaire cinquante mille franc la boo yoree lu mat lu mat. lu mat te yéen bokk na ci voilà na ci lu ñu gën a lu ñu daane. seen mu ngi noonu. même laa wax oto bi yi aussi tamit bu ñu dem séddale kii bokk ngeen ci séddale voilà non ñun ci xam nga te yéen ci ngeen bokk voilà laawas oto yi ngay gis nii ñuy def nii yëpp daanaka li ngay xëy di laawi lépp ci ci ay fare lay dem ay frais lay dem. Mhm. doo ci jëlee dara mais il faut nga def ko ah pour wan ndaw dëkk bi ne leen mhm. lii la ñu war a def pour doxal waaw li nga war a def mhm. doxal ko am ngëm-ngëm ne ñun dañoo war a gëm suñu bopp ñun ñooy doxalal suñu bopp dëkk bi ci kaw dal ak yar ak teggin parce que loolu fu mu demul rek dara mënu fa am du am avancement xeex rayante fi toj kaar yi jaamur yi kaar yi ñuy toj suñu ay papa ko fi bàyyi woon ak suñuy maam suñuy nijaay ñun dañ ko fee war a bàyyi suñu ay njaboot oto toj oto jaamur mhm. koo xam ne yoonam nekkul ci politique nga taal si taximaan nga taal otoom kooku réew doomu réew mi la te mun naam sax ki nga taal otoom sa frère la wala sa tonton la wala sa nijaay la wala sa papa la wala sa bokk la moo xam ne xamoo ko mm-hmm. te xamoo nan la def ba am ko loolu moo tax ñu taxawal lii mm-hmm. pour kenn ku nekk nga war a am vision bi mm-hmm. créer dara xëcc ndaw yi teg leen fo def ci seen bopp ne leen bu leen xeexal benn politicien dem leen ngeen toppatoo seen waajur yi fexeel lu ngeen am ku ci xëy am benn quinze mille francs dem jox ko sa waajur mu ñaanal la tax moo gën dem di politiciens yi duñ kenn ku fi toog ku fi toog mm-hmm. discours bu la waay mën a jox mm-hmm. su toogee day mel ni mm-hmm. dañ ko échanger da nga daan kii du moom moo doon wax discours boobu donc kon ñun dañoo war a yeewu waaw dañoo war a yeewu gëm suñ waaw xool ku ne nga xool ki amul métier mu dem jàngi métier. Mm-hmm. ki ne ci jàng métier ba jàng métier mu respecté métier mi. Mm-hmm. di xëy heure di wàcc heure. Mm-hmm. di dox ci ay res ay ay ay kilifteef. xale ndaw noonu la war a def. boo war a fekkee ne jàng nga jàngatoo. demal nga def métier. loolu daal moo tax ñu taxawal lii di ci góorgóorlu. amuñ ci loo xamante ne bii. ñun ñu ko gérer dañuy toog sax am problème mu te boo ñëwee gis structure bi da nga ne ñiy jeexaluñ dara. parce que wéccet yi ngay am noonu. yoru la mhm. mais il faut ñu def ko tax ndox góor mhm. du toog croiser les bras rek di xaar état mhm. loolu moo tax ñu créé structure loolu rafet na loolu rafet na macha allah mbokk yi ñu doxantu dem seetaan suñu rubrique auto école dellu si ñu ngi waxtaanee ci code de la route de la manière générale salaamaaleykum mbokk yi maa ngi tudd Ibrahima Mangane nekk moniteur de code de la route fii ci auto école Bichmillah donc tey li ñu fas yéene waxtaan ak yéen ci seen émission seen carrosserie seen rubrique auto école mooy code de la route de façon général mais aussi code technique de façon particulier donc code technique bu ñu ko waxee rek mooy code bi nga xamante ne moom ngay appliquer ci kaw tali bi te jàngoo ko ci panneau yi rek donc mun nañ jàpp ne mooy l' application du code de la de façon générale jàpp leen bu baax ñeent yi bu ñu laajee kañ ngay am priorité yow chauffeur bi war ngaa xam ñeent yii nii foo fekk rek yow yaa am priorité bu ci njëkk bi mooy ban mooy feu bi su tàkkee verte feu su tàkkee vert amna priorité pour dem parce que xam ngeen ne feu tricolore ñetti lamp yi bu tàkkee rouge da ngaa war taxaw kon amo priorité bu zone da ngaa war a mais su tàkkee vert nga am droit dem donc bu ñu laajee kañ ngay am priorité da ngay wax feu bi tricolore bu su tàkkee verte amna priorité pour dem donc mais aussi la rencontre des panneaux prioritaires la rencontre des panneaux prioritaires mooy su ma tasee ak tableau yu may wan ne man maa am priorité donc fu ma gisee tableau bu ñu wan ne man maa am priorité rek ça veut dire que man maa am priorité pour dem bu ci mel ni bii bii daf lay yow yaa am priorité mooy priorité à la prochaine intersection bi daf lay wan accès ci intersection bi yow yaa am priorité bii tamit daf lay route à caractère prioritaire tali boobu ngay daw yépp yow yaa am priorité bu ci mel tamit bi ni daf may wane priorité man m'a am priorité par rapport ak auto bi ñëw sama kanam priorité par rapport à la circulation venant en sens inverse. mais aussi suma ma tay ci tali bu mag tassé ak tali bu ndaw war naa xam ne man mi nekk ci tali bu mag man maa am priorité par rapport ak ku nekk ci route secondaire bi donc su ma nekkoon ci tali bu mag tase ak tali bu ndaw toujours naa jàpp ne man maa am priorité man mi nekk ci tali bu mag bi mais aussi agent de circulation bi mo xam police la wala gendarme wala douane suma woné wet côté toujours man priorité pour dem donc ñett façon am agent de circulation bi moy policier bi wala gendarme bu taxaw ci tali bi soit daf lay wan kanam wala soit daf lay wan ginnaw wala soit daf côté day profil donc si l'agent de est de profil si l'agent de circulation est de profil donc man ma am priorité pour dem maintenant que ñay ñak priorité boo xamee kañ ngay am priorité war nga xam aussi xam kañ ngay ñàkk priorité donc kañ ngay ñàkk priorité évidemment bu feu bi dafa tak vert man ma am priorité kon feu bi su také rouge aw ma priorité dama wara taxaw donc si le feu est rouge aw ma priorité stop foko gissé da nga wara taxaw kon amo priorité stop l'arrêt est obligatoire dama wara taxaw kon amoo priorité céder le passage foko gissé da nga wara a céder le passage da nga wara a cela veut dire quoi kon amulo priorité parce que ka ngay may kooku moo am priorité sànq nee naa la bu fekkee da nga nekk ci tali bu mag tase ak tali bu ndaw yow yaa am priorité yow mi nekk ci tali bu mag par rapport ak nekk ci tali bu ndaw yow mi nekk ci tali bu mag yow yaa am priorité kon kañ ngay ñàkk priorité su ma nekkee ci tali bu ndaw évidemment tase ak tali bu mag damay ñàkk priorité mais aussi agent de circulation bi su taxawé mom won ma kanam wala mom won ma damay ñak priorité comme bu policier bi agent de circulation su la wanee wet rek ngay am priorité pour dem donc kañ lay ñak priorité agent de circulation bi vous avez kanam wala mom won ma ginnaaw priorité mais aussi il y a ce qu'on appelle la rencontre des véhicules prioritaires Je auto yi nga xamantene toujours bo tassé ak ñom rek ñom ñoo am priorité ci sa kaw li police wala ambulance wala sapeur wala cortège surtout bu ñu taalee seen gyrophare wala seen sirène donc gyrophare mooy lampe buy tourner bi te mu bari ay couleur bu fekkee sirène bi nag moom mooy donc loolu foo tasee ak parce rek oto yooyu toujours da nga leen di may ñoom ñoo am priorité ci sa kaw donc doo am priorité. maintenant lu ñuy waxtaanee mooy condition pour dépasser mooy kañ nga war doubler. tey bëri na ñoo xamante ne nii tey boo leen laajoon boo boo doublé lan nga war a def dañ lay wax rek dama war a signalé daal di doublé parce que ñoom loolu rek lañ ca jàpp dañu jàpp na nga war a signalé daal di doublé alors que signal boobu ñuy wax moom mooy mujjee y a une tas de un tas de conditions yoo xamante ni moom nga war a remplir avant ngay effectuer un dépassement bu ci njëkk tey boo bëggoon doubler lan nga war a njëkk a xool la première des choses qu'il faut voir mooy xool ndax terewuñ ko ma ku fi doubler ndax amul lenn luy mandargaal ne dañuy dañuy tere ko fi duble comme bu dee tableau bii la par exemple xam nañ ne fii dañuy tere ko fi duble su dee oto bu ndaw nga yore su dee bii la dañuy tere oto bu mag di fi duble mais aussi damay xool ndax nekkuma ci ligne continue ndax nekkuma ci ligne continue parce que ñëpp xam nañ ne ligne continue kenn waru faa doubler donc bu la waxee boo bëggee doubler lan nga war a njëkk def nga ne damay xool ndax tere terewuñ ko fi duble tere bi ñaari dong la soit ma nekk ci ligne continue nga xam ne dañuy tere ku fi doublé wala soit may jàkkaarloo tableau bi nga xamante ne day tere ku fi duble su fekkee loolu leer na nag ma daal di xool samay rétroviseur deuxième point mooy damay xool samay rétroviseur ndax amul ku may bëgg a doublé parce que ñaari oto mënu ñoo doublé ndoo benn oto su ma xoolee ne amul lenn lu may tere ma doublé rek automatiquement damay xool sama rétroviseur nag naa di xool ndax amul oto bu may bëgg a doubler parce que ñaari oto mënuñoo doubler ndoo benn oto su fekkee loolu amul ma xool ndax nekkuma ci virage wala intersection voir si je ne suis dans un virage ou une intersection parce que virage wala intersection dañuy tere ku fa dépasser. donc toujours rek warna xol ndax nekuma ci virage parce que virage mu nga dem di doubler far dal di sarane sous des intersection la moy croisement mu nga dem bay doubler far benen auto génne na ne jàpp ne moom am priorité bu ko defee jéye mën am donc damay xol samay rétroviseur ndax amul ku may bëgg doubler su féké amul ma xol ndax nekuma ci virage wala intersection su féké lolu amul

loolu sax da nga ko war a xool ci condition yi la bokk parce que mënoo yor sa oto bu yéex man ma yor oto bu gaaw nga ne da nga may bëgg a doubler dañuy xatal tali rek toujours damay xool ndax oto bi may bëgg a doubler man maa ko gën a gaaw loolu lañ naan avoir une réserve d' accélération leer na ne desal nga réserve boo xamante ne tey boo ko accéléré woon rek ëpp mën nga jug daal di dépassé oto bi nga bëgg a dépassé moom lañ leen indiloon tey ci seen rubrique auto école ci seen émission seen carrosserie jaa ngeen jëf ba beneen yoon. seen karo sori mbokk téléspectateurs yi loolu lañ jëlee woon suñu rubrique auto école gis ngeen ko gars yi bàyyi leen ci xel ci lu bëree bëri bëri bëri ñu avancé nañ kon ne suñu waxtaan waaye euh, momo euh, Mamadou si euh, lu nga wax c'est très important ndaw yi bokk na ci ñu gën a bàyyi xel aussi tamit ci avenir Sénégal xam ni seen loxo la nekk toujours ndaw moom mooy yori réew te ndaw mooy nekki mag ëllëg te loolu bu ko saytuwul rek day doon loo ni ne après day sooxee parce que réew bu amul éducation rek réew moomu noonu mënul avancer côté boobu aussi tamit conseil boobu noonu ndaw yi war nañ ci gën a bàyyi xel ci conseil boobu nga joxe ci côté boobu noonu voilà di dellu euh, di waxta dugaat ci biir waxtaan bi comme jafe-jafe ngeen ni gën a jànkonteel fee au niveau du service des mines loolu noonu instant bi féete na boor tamit comme li ñu wax sànq jamonoy covid bi yéen bokk leen ci euh, luñ leen ci xaalis bu ñu dem séddale yéen gisu leen ko bokk leen ci waaw te aussi tamit yéen bokk ngeen ci ñoo xamante ne aussi tamit gën na leen gàllankoor ci côté boobu noonu waaw état bi aussi tamit côté boobu noonu war na leen gën a mën a bàyyi xel parce que yéen ay employés ngeen yor te ku ci nekk lu mu dee dee dee war nga war yor ay vingt vingtaine de personnes yoo xamante ne ñu ngi sa ginnaaw te lépp lépp aussi tamit ci yéen lay génn comme état bi tamit ci boobu waroon na leen gën a mën a bàyyi xel ci côté boobu noonu am yoo xamante ne tamit yu muy jël euh, teg ko si seen loxo aussi tamit ngeen du doonu loo xamante ne sax luy complété lépp la mais geste boo xamante ne aussi dina leen gën a wàññil charge ci boobu noonu quoi noonu la demee faut euh, aussi euh, au niveau du service des mines xaar ma dugg waxtaan ak sama copain Mamadou Gueye Mamadou Gueye ñu tout waxtaan suite. waaw Mamadou Gueye euh, au niveau du service des mines auto yi buy que Europe di ñëw walum dédouanement bi ak Walum mutation bi lepp dédouanement bi ci port bi la ci port bi la dédouanement bi mutation bi ko yor service des mines té benn bu ci nekk pas ci ñom ñaar dédouanement bi ak mitation bi benn bokk ci pàcc. maanaam euh, sa oto bu jógee Canada wala fu mu mën di jógee. Hmm. ba mu ñëw euh, man dama am lu ma bëggoon wax sax ci domaine nu bi maanaam jëf ju ñaaw yi gars yi di def si port bi. Hmm, balaa may ñëw ci service yi mine bi. Hmm. parce que boo commandé sa oto mu ñëw. surtout ñi lay commandé nekk nekk ci nekk ci réewu tubaab bi quoi. surtout ñu ñoo la njëkk a tooñ. tooñ bi ñu lay tooñ mooy. ñu ci bëri ñoo xamante ni. boo dugalee ak ñoom. Mhm. ba ñëw wàlla ci wàllu commande bi. Mhm. maanaam tey boo ñëwee jël ci photo lañ lay jaay. Mhm. bu foto photoyee oto oto bi def choc. yaa ngi dégg ñu foto benn partie bi. nëbb la beneen partie bi. wan la benn genre photo bu ndaw. wala ñu arrière xam nga photo mënoo gis lépp. mënoo ci gis lépp dëgg boo ñëwee liñ na la moo yàqu dañ ñaan la benn faar moo ci yàqu wala benn benn benn kii kii bi moo toj faar bi wala nangam ñu wax la li toj ci oto bi. léegi nag nga ñëw oto bi ñëw Sénégal. Mhm. bi ñu koy débarqué maanaam bis bu ñuy débarqué oto yi bañ fay kenn ku nekk fay sa débarquement. Mhm. ñu war a débarqué oto yi. Mhm. bu ñuy wàcc da ngay gis ni yow sa oto lii nga waxante woon ak waa ji defu ko. ci buñ koy embarqué buy ñëw. buy ñëw parce que ñëw ne la faar bi moo toj. naa la faar pare-choc bi moo toj dugalal naa la pare-choc. nga ñëw gis ci yeneen toj-toj. loolu yow yaa jël engagement def ko moom lam la lam lay fay mooy faar bi ngeen waxante ak kii bi. boo ñëwee yow gisaat yeneen yaaku yàqu léegi nag ci yàqu-yàqu yooyu yow yaay ñëw jël yàq jël sa xaalis fay. Mm-hmm. dëgg bu po bu fekkee ni tey da nga commandé sa oto. Mm-hmm. waa ji fayul release am na benn some boo xamante ni maanaam bato bi dafa ko war a fay. loolu mooy release bi. Mm-hmm. su ko fayut. oto bi bis bu ñu wàccee konneer bi. fekk moom fayu ko. yow doo mën a débarquer te oto bi temps bi muy toog foofu noonu da ngay fay magasinage. léegi nag magasinage boobu bis boo ko waree fay. de lañ koy xëppaat. yéen client yéen ñi moom oto bi yéen yéen ay fayaat loolu noonu yéen ay fayaat xaalis bi léegi nag loolu yëpp day nekk di yanu sa kaw mhm. bu paree tamit bu ñu wàccee oto yi mhm. fi muy dem comme euh, mool 1 mhm. fi oto yi di wàcc bu dee sa oto dañ ko wàccee foofu ñooñu ñooy waral ñuy sàcc say pièces oto te loolu yëpp day wàccaat sa kaw yow borom oto bi man oto bi ma mujjee wàccee nii nii Mazda bi nii mu ngi foofu gaare si parking bi samay gousson sama gousson yi dañ ko sàcc sama bi signal bi bi nekk ci wetu retourneur dañ mhm. ko dindi. Mhm. te damay dem jëli ko défoncé. te mhm. bu ma nee défoncé boo moytuwul sax mën nga ko jëndaat. mës naa jënd benn rafkaat. poignée bi ngay yëkkati sa sa loxo ci kii ver bi. Ah, clavier dañ ko teg. ma dem défoncé di ko wër ñu ñu boole maag booy jinne ku ñuy wax booy jinne maa ngi jéggalu nag si tur bi. ma dayee ñu boole maag moom. moom moo moom moo dugg ci biir di foncé indi laat ma comme sama bos bi. te ñemewu ma wax ne bii sama bos la. waaw mu ñëw ñu jaayal ma ko trente cinq mille. Mhm. ma dem fay yëkkatiwaat boobu noonu def sama oto génnee dem sama yoon. parce que gars yi dafa mel dañ leen di suivre parce que tey oto bi bu fekkente ne dafa am pièce boo xamante ne dañ ko ci dindi ñoo ñëw wëlbatiku ñi koy sàcc ci biir port bi ci biir port bi la ñuy liggéey ñoo la koy jaay ñoom ñoo koy génne dem jaayi ko waa défoncé jaayi ko waa défoncé yow boo mhm. demee ñoom ñoo la koy génne la mhm. façon toute vous nga fay gis. jëf ju ñaaw ju mhm. nga parce que expliquer cassette kiiw cassette bi dañ ko démonté mhm. oto bi mënul tàkk ci poom nee mu ngi inquiété ba buñ ko génnee instant ba ba oto bi génn mhm. mu ngi taxaw waa gis bi ah cassette de am na koo xamante ne cassette Sénégal moom rek a ci mën cassette fii nii uh-huh. léegi ne mën na leen waa ko léegi xaar dañ lay ci numéro mag yooyu génnee ko boole kook waa ji mhm. nekkoon ci oto moom la ñu wëlbatiku cassette boobu la ñu ko jaayaat moom lañ koy jaayaat waaw cassette dafa cher dafa cher cassette boobu noonu lañ ko wëlbatiku jaayaat ko ko même cassette bi dafa cher waaw maanaam daal li fa am yëpp kenn mënu ko xam yow xëy na am na yow yaa ngi dugg di génn. Mm-hmm. xam nga yaa ngi découvrir di xam. Mm-hmm. parce que tamit ñun xam nañ d'accord li ci nekk. Mm-hmm. mais nag bon amuñu fuñ ko jooyee. état tamit seetaan nañu ci côté boobu oto bu ñëw port ñoom ñoo war a jël seen matukaay dimbali nit ñi. mais gis nga duñu ko def. ñun ñoo fay nekk di raayante. buñ sàccee sa oto wala sa piyes bu mu mën di doon yow da ngay muñ. jëm jël sa oto jàpp si yàlla nga dem génnee defar. des fois nag bon nga am des fois nga ñàkk. Mhm. parce que jënd ak jaay moo moo mel noonu. moo mel noonu la mhm. yenn saa nga am yenn saa nga ñàkk ak aussi euh, fële ne oto bu génnee au niveau service de mines au niveau du service des mines fële côté mutation bi amu leen benn jafe-jafe bi ngeen di jànkonteel ci côté mutation bi. waaw mutation bi nag moom bon euh, métti na méttiwul. Mhm. maanaam tey yow boo jëndoon sa oto nga dem di doxal sa bopp procédure bi. mën naa ne dina métti ci yow. mais dafa am ñu fa nekk ay ndaw yoo xamante ni. boo ñëwee yàlla boole la ak ñoom mhm. ñoom xam nañ circuit bi mhm. da leen di fay commission mhm. ñu liggéeyal la buñ paree jox la sa kayit doo ci am benn gàllankoor te ci mutation bi dañ ciy am ay ay ay ay jataay ay ay affaires yu sew yu ci am maanaam suñu agent yi fa nekk ñi nga xamante ni ñooy agent service yi mini mooy ñi nga xamante tey bu oto bi jógee Europe bu ñëwee service yi mini nga war ko xool dafa am ña fa nekk ñoo xamante ni dañoo dañoo dañoo dañu dañu jubawut book ci affaire de liggéey bi. Mm-hmm. seen biir parce que tamit mm-hmm. euh, da ngay ñëw indi sa oto. Mm-hmm. mu am benn problème wala benn fissure bu mu mën di doon xam nga ñoom du ñu visite technique. boo ñëwee fisir bi ci am. boo ñëwee dañ lay dàq ne la demal nga changer para bi te yow da nga ñëw pour pour muter pour muter sa oto. changer sa plaque. boo ñëwee ñu ne la demal demal uti sa parabrise wala demal uti lii. te ñoom loolu du seen rôle. seen rôle lan la mooy contrôler numéro châssis. des fois nga ñëw kii defaral la kii may la lii. Mm-hmm. nga dem beneen agent du la ko may. du la ko may. Mm-hmm. maanaam am na loolu métit yu fa am yoo xamante ni daal mm-hmm. ma boo sequt ak ñoom xaar ma yàlla. du du du du sotti. tamit bu fekkee ni tey ñoom xamuñu la. liggéeyuñu ak yow wala yow ki wuñ maanaam jëflante ak yow. tey moom na la leer ne foofu moom munoo fa am dara da ngay dem def li nga bëgg nga ñëw indi ñu defaral la. ci jamono mutation bi nag peut-être ci ay jamono xawoon na métti tuuti mhm. parce que ak Covid bi mhm. rendez-vous dafa sori woon mhm. da ngay jël rendez bu toog presque un mois wala un mois quinze jours bu sa rendez bu ñëwee nga ñëw indi sa auto présenté visé buñ ko visé après nga topp sa procédure mutation léegi nag moo ak ki fi nekk nii DG bi fi nekk di ko nuyu au muy Val joojo moom moo fi nekk bo ak ay élément am wax dëgg yàlla ku ku décanté na fi ay situation yu mm-hmm. yu métti mm-hmm. métti métti mi ngi dimbali nit ñi tamit mm-hmm. mi ngi dimbali nit ñi bu baax a baax parce que am nañ ay gàllankoor yu métti yu fi amoon dangay ñëw ñu rejeté sa dossier da ngay ñëw ñu commandé oto nga am problème mu carte grise comme Espagne wala wala Belgique ñaari carte grise la am boo ñëwee benn carte grise bu ñëwul ka fi nekkoon dans la nga dem andi ko boo ko andiwul doo miire sa odo da ngay ñëw foofu agent la sa kayit bii boo ko andiwul doo ko mës a mité mhm. loolu du yoon te loolu noonu fiche fiche technique boobu ñu lay laaj mhm. pour Europe la mhm. mais lan la ñu doyee fi ay fiche technique fiche fiche boo ko amul fii mais ki fi nekk nii bi mu ñëwee yàlla dafa dogal wax dëgg yàlla ñëpp ku ñëw mu ne la problème fiche technique nga am mu may la ko mu signal la ko nga dem sa yoon dëgg la wax dëgg yàlla ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool lool te wér yàlla bàyyi ko fi wax dëgg yàlla décanté na ay situation yu métti yu fi amoon loolu rafet na waaw loolu rafet na njiit moom day njiit moom foog mu am tolérance xam nga waaw mën a boole lépp mu nekk benn ko njiit surtout léegi aussi euh, mutation bi mutation bi oto yi seen jëm bopp oto bu ci nekk ak année bu mu kii la wala âge bi côté prix bi ci âge bi la wala oto bi kilométrage bi fa lay dépendre pour côté ci fay bi waaw. waaw fay gi. Mm-hmm. bu fekkee ni oto bi dafa am tey euh, dafa am 10 ans. Mm-hmm. wala oto bi dafa am tey année bi da ciy joué parce que tey oto bi bu amee comme 2012. Mhm. ak 2013 li muy fay bokkul. 2012 mhm. li muy fay moo gën a la léger. 2013 mhm. ñëw. 2014 ñëw ba 2015. loolu mooy Argus bi quoi comme 2013. Argus lañ koy mën a wax. léegi nag ba yéeg ci kaw ba 2020 yooyu yëpp ay Argus la. at bi lu mu gën a kii rek day gën a cher. day gën a cher. bu dee yi nga xamante nii tey euh, ëppal nañ 10 ans. yooyu yooyu euh, dafa am somme bu ñuy fay. ñoom li ñuy fay du bëri. Mhm. parce que ñooñu ñi nga xamante ni jot nañ leen muté bu pare. Mhm. ñoom dafa am droit de impôt fu ñu koy fayee. mooy géejawaay. Mhm. wala Bourguiba. ñoom fa la ñuy fayee seen seen seen seen seen droit de. timbre yi ñu war a fay yooyu mutation yooyu méttiwul. mais yi nga xamante ni nag tamit anne bi da ci dafa dafa dafa dafa carrément ay 2013 jëm kaw ñooñu argus lañ leen di calculer. impôt am na lever bi. boo demee ñu calculer le temps bi nga somme bi nga war a fay boo ko fayee. nga génne ci say détails yi nga war mhm. fay ay plaques yeeg xam nga mhm. yooyu noonu boo ko ci génnee génnee ci main d'œuvre yi mhm.

boo ko dédouanee sa tur man ma ñëw nga jaay ma oto bi mhm. soo ma jaayee oto bi mhm. loolu bu amee acte de vente mhm. double mutation nga koy mën a wax maanaam double mutation mooy lu am acte de vente tey yaa moom bi mité bu doon yow tey sa tur nga ko mité loolu du double mutation parce que amul acte de vente mutation directe la mais tey boo yëkkatee oto bi jaay ma ko man ma jënd ko ci yow da may defal acte de vente ma mën a def double mutation bu ko defee man oto bi dina mën a nekkaat dina jóge sa tur pour mën a ñëw sama tur. Mhm. loolu la ñuy wax double mutation. Mhm. te bu boobaa yow mu euh, yow mu nekkoon sa tur dangay ngay da ngay baare sa carte grise wala. voilà da ngay baare da ngay dem central. waaw parce que su ma kiiwul parce que bu dee mutation bi. Mhm. oto bi bu buy damay laajte bu fekkee day génn fële euh, au niveau du port. jaar service des mines. bu jaaree service des mines bu ngay njëkk def. loolu mutation boobu da koy muté mais am du am carte wala mutation boobu bokkul wala. non maanaam bu jógee douane ba ñëw. xam nga CMC lan la jox douane léegi CMC bi sa tour la nekk yow mhm. léegi man nga man ma bëgg a jënd oto bi ci sama tour mhm. man dañuy ànd central nga defal ma acte de vente légalisé mhm. acte de vente boobu noonu moo ma permettre man ma mën a dem miite oto bi nekk sama tour léegi nag yow bu fekkee ni da nga jënd oto bi mu nekk sa tour yow boo bëggee ñëw miite mutation direct lay doon bu boobaa yow mutation bi sa tour lay génn direct mais man su ma ko bëggee jënd ci yow daf may defal acte de ma mën a muté mu mën a nekk sama tur su boobaa loolu double mutation lañ koy wax waaw bu boobaa yow foog nga bari sa carte grise faaw yow nga dem central mm. def légalisation mm. dooga gi mais bu dee carte grise la nag bu dee oto bi xas na am plaque mm. su boobaa da demaat central baare sa carte grise pour mën ma defal ma acte de vente bi sama tur. man bu boobaa man tamit ma dem mutuelle ji. Eh, mutuelle waaw. d'accord parce que damay gis souvent euh, bu dee côté vente gars yi yenn saa yi nga gis oto boo xamante ne euh, dañ koy muté. ci turu nit mais pourtant da ko jaay keneen mais waaj da koy dawal dawal dawal parce que cas bu am na waaj da koy dawal dawal ba wëlbatiku moom ci jëm boppam mu wëlbatiku jaay oto bi moom ci boppam keneen mhm. léegi kële nee jaayoon ko oto bi jotul woon euh, baare lu ñuy wax carte grise léegi moom day am jafe-jafe instant bi pour mën a mutuwaat oto bële parce que dañ koy laaj ay papier kële keneen ku ko njëkkoon jox oto bi fekk kooku nekkatu fi voyagé na mhm. am ay gàllankoor yu bëri bëri bëri maanaam tey kii day jënd oto ànd ak nit ñu dem defal ko acte ñu baare carte grise bi moom météo moom mu jaayaat oto bi keneen kooku jaayaat ko keneen léegi yow ki nga xamante ni fa la bi commencé ci moom kooku moom mënatoo ko gis léegi nag su fekkee dañ defal acte de vente yow au nga dem mité météo nga dem jaay ko bis boo demee pour mité waat di nga am problème fekk oto bi dem si turu waa ji bu pare kim kim ko njëkk a jaay mm-hmm. moom mu mité ba turam génn si carte grise bu pare mm-hmm. nga doog a dem mité mm-hmm. boo ko deful doo mité parce que carte grise yi baare bi ñu koy baare mooy dañuy xotti ñaari cati carte grise yi mm-hmm. wala ñu ñu rëdd ko mm-hmm. ba doo ko mën a gis doo ko mën a utiliser léegi nag bis boo demee central di di utaat beneen vente bu bokk ak boobu nga yóbbu carte grise bi su boobaa dañ ñaan la carte grise bii mus nañ ko baare ana acte actre vente bu njëkk ba boo leen acte de vente ba dafa réer dafa am ay procédures yu ñu lay laaj su boobaa carte grise bi ki nekk si turam moom mooy ñëw présenté wu taxaw ñu xool registre bi parce que ñoom am nañ ay registre mhm. bu ñu xoolee dinañ génnee acte de vente bu njëkk ba mhm. pour mën la permettre defal la beneen acte de vente mhm. noonu la demee mën na defal beneen acte de vente léegi euh, boo xoolee ne la fële toujours au niveau du service des mines parce que am na ci oto yoo xamante ne fan la kii bi moins de huit ans la moins de dix ans moins de dix ans la instant la toll léegi au niveau du service des mines boo ñëwee da ngay gis oto yoo xamante ne tey mën naa ni dañ naan sax amatul droit daw Sénégal. te léegi ba jusqu'à présent boo demee visite da nga leen fay fekk toujours. mais oto yooyu nan la ñuy def ba at mi am visite. waaw xam nga visit technique loolu maanaam métti na bokk métti na. mais nag léegi bon sant yàlla ba état bi euh, tas na ko. fu mel ni foir Colobane léegi mi ngi yaatu daal. parce que visite technique dafa xaw a métti. am na nag ay élément agent yoo xamante ni bon ñu ngi ci biir bu fekkee sa oto dafa passé voie normal nga yóbbu sa oto defar da ngay dem defar parce que tamit mënoo ni da ngay passé visite jël sa oto dawal ba doyal sa rendez-vous bi say ni ñëw nga dem passé boo ko defee dañ lay daax war nga mën a jël sa oto yóbbu ci tôlier bi mu yóbbu ci mécanicien bi mu vérifier la frein yeeg yooyu noonu xool sa électricien mu defal la lampe yi ci war ak yooyu mais nag bon leneen li nga xamante ni mooy li ma expliqué comme des fois nga gis oto mu xaw a doy waar lool mu dem ñëw ne la am naa visite bon loolu moom domaine gaay la ñoom xëy na peut-être ñoom ñooy nekk di dugg ak génn nag yooyu noonu mais ñun ñi nga xamante ni suñuy oto bopp moom balaa ñuy dem visite fu fépp foo xamante ni moom oto bi war na fa dem mm-hmm. muy ci wàllu électronique muy ci wàllu mécanique mm-hmm. dinañ fa dem defar li ñu war a defar doog a yóbbu suñu auto visite. Mhm. su boobaa duñu am benn gàllankoor. benn gàllankoor. Mhm. dëgg la léegi euh, aussi euh, boo xoolee ni oto yi yoo xamante ne mën naa ne dañoo âgé am na xam nga parce que am na ci yoo xamante ne dañ naan sous douane la. am na ci oto yoo xamante ne fekkee da nga bëgg ñu jaay la ko sous douane léegi yow après nga dem xool parce que depuis oto yi di egsi fële am na ci ci yéen ñoo xamante ne boo bëggee. dañ lay jaay li ñuy wax sous douane dañ lay jaay yow nga dédouaneel sa bopp ñoom duñ ko gérer léegi mën nañ la embarquer oto bi depuis fële nga jënd ko ba oto bi egsi fii bu xasee egsi nag ñoom wàccoon nañu ak yow yow lu ci war mooy côté douane beeg genn côté yëpp yow sa côté la léegi wàllum sous boobu nu mu demee noonu waaw sous yi euh, tey des fois ma jékki-jékki comme nii man jaay nañ ma fi maintes fois ay sous douane ñoo xamante nii dañuy jënd oto amuñu lu ñu dédouané wala ñu am problème mhm. problème mu xaalis ci jamono bi ñu toll nii mhm. ñu jaay la oto ne la am naa oto bu bu nekk ci port bi boo bëggee ma jaay la ko ñun dañ ko am souvent buñ ñëwee dañuy ñëw jënd buñ ko jëndee mais balaa ñuy jënd dañuy dem xool fi oto bi nekk buñ demee xool fi oto bi nekk mais dañuy wax ci ay condition magasinage yow yaa koy fay parce que xamuñu temps bi oto bi toog foofu noonu te magasinage yi journée deux mille cinq cent la mm-hmm. dangay gis ay oto yu fa toog ay six mois wala ay lu ëpp six ñu ci bëri ñoo xamante ni dañuy jël seen oto oto yaa ngi biir port ñu ci bëri amul borom seeni borom perte bàyyi nañ ko parce que mm. buñ cal buñ ñëwee bañ calculer leen magasinage mm. dañuy perte mm. dañ ñaan oto bi de bu ma naree fay magasinage somme bu toll nii jël leen ma may leen mm-hmm. oto ba nekk fa yàq fa mooy loolu des fois nag nga ñëw jënd sa balaa may jënd sous douane damay laajte d'abord oto bi am na magasinage bi ñaata jour la ma xool bu magasinage bi bëree ma ne la yaa koy fay su bëriwul tamit ma boole ko ak samay kii quoi am na ñoom dañ lay jaay tamit ak débarquement ñoom fay nañ seen débarquement mhm. da ngay ñëw rek dem def douane normal mhm. boo ñëwee dem gis sa transfert waxaaleeg moom bu ngeen jubóowe nga jox ko sa dossier mu paase la mhm. voilà loolu loolu kese la quoi bu génnee tamit après nga jël li nga ci war a defar nga defar bu fekkee amul choc nga jël génnee sa oto raxas ba mu set teg jaay teg jaay léegi parce que xam nga oto oto mën na ci oto yoo xamante ne parce que da koy gis ci biir dëkk bi yoo xamante ne sous la mhm. te du ci port bi exact port bi rek mhm. yoo xamante ne ci biir dëkk bi lay nekk foo ko bëgg mhm. ci biir dëkk bi dina am ci ay point yoo xamante ne am na oto yu mel noonu mais oto yooyu noonu nu ñuy def ba génn ci port bi parce tamit sous douane lañ koy mën a waxee parce ñoom tamit aussi oto yooyu tamit gis nañ ni loo xamante ne mandi lay jafé jafé yo xamantene da ngay ko wat xaalis pour mëna dem fay pour mëna jotat sa auto waaw c'est auto yi ngay wax nonu moy auto yi jógee vers transit lañ koy wax mm-hmm. manam tay nga dék mm-hmm. Europe mm-hmm. dugal sa auto mu ñew auto bi agé mënul dugg Sénégal da ngay def transit vers Gambie wala Mali wala fu mëndi doon légui auto bi bu ñëwé fi ni dañ lay dañ la wara bolé booleeg douane bo xamanteni mom moko wara yobbu léegi nag moom moom nga war a àndal douane moo la war a escorter. Mhm. léegi nag oto yi bu demee ba ba benn ba ci wetu frontière bi. Mhm. ñoom ñooy faral di jël oto yi. di leen dédouané Gambie wala Mali fu ñu leen dédouané bu ñu paree dugalaat oto bi. Mhm. oto bi bu amee passe avant. mën na dugg fii. bu amee passe avant Sénégal mën na dugg. daw cirque fu mu ko neexee. mais bu passe avant bi jeexee. moom oto bi moom bu ñu ko jàpp. fu ko duwaan jàppam da koy teg loxo. wala fu ko police jàpp wala ku mën di doon mhm. fu ñu ko jàpp dañ koy teg loxo mhm. léegi nag moo waral oto yi gars yi di ko dugal ci biir dëkk bi mhm. di ko tas pièce détachée wa ilaa ñu koy jël di ko def ci yeneen oto yooyu noonu bëri na fi nit ñi di ko def daal ci oto yi nga xamante ni tey mooy jóge Europe même bu âgé wul mën nga ko dawal ci yoonu suuf bi mu ñëw boo ñëwee am na laissez-passer booy am boo ñëwee am laissez sa laissez-passer sa document yi ñu jox boo ñëwee mën nga ko dawal fii mun nga ko yor fii heure boo ko bëggee dédouané bu dee âgé wul moom heure boo ko bëggee dédouané mun nga ko dédouané doo ci am benn problème mm-hmm. te passe avant bi moom toujours bu fekkente ne passe avant bi dañ la may benn quelque temps mm-hmm. passe avant bi mu duré quinze jours mm-hmm. wala mu duré dix jours bu jeexee mën nga ko renouveler wala passe avant moom bu jeexee da nga koy renouveler daana norme da nga a yóbbu oto bi waaw fii am fii lañ koy utee bu njëkk da nga daan dem yóbbu ko yóbbu ko ci dëkk bi nga ko jëndee mhm. nga dem ut passe avant ñëwaat mhm. laata passe avant bi di jeex war nga mën a dem di jëndi passe avant mu ñëw mhm. mais bu boo seetaanee moom ba mu jeex mu leer ni jeex na bon danga nga daan gis fii nit ñoo xamante ni dañuy toog fii woote wutal leen passe avant bu ñu demee ñëw continuer seen procédure continuer dawal seen oto bëri na fi ampagay ñoo xamante ni ñu ngi dawal seen oto passe avant la ñuy dawee fii bu jeexee ñu dem uti ko chaque heure bu jeexee chaque quinze jours bu jeexee nga renouveler chaque quinze jours bu jeexee nga dem renouveler boole kook sa assurance boo paree daal mi ngi noonu nekk si jàmm waaw. Mm-hmm. mais loolu noonu aussi tamit dina doon loo xamante jafe-jafe lay doon parce passe avant boo xamante ne chaque 15 jours nga dem renouveler. Mm-hmm. chaque 15 passe avant booy dugg ci dëkk bi délai lañ la may ak temps boo xamante mm-hmm. moom nga war a def ci dëkk boobu noonu. ak sa oto parce dëkk la oto jógee dugg ci dëkk. temps bu la may oto bi ñuy saytu ko ne xool oto bi ça fait ans muy bi. léegi chaque 15 jours muy dem di renouveler mais loolu noonu xanaa lu ñuy fay ci côté boobu cherul le renouvellement bi. non non renouvellement bi cherul. renouvellement bi matul sax 15000 euh, francs xaw ma 20000. méttiwul mhm. quoi. Mhm. am na am na am na fu ñu koy utee fii euh, euh, côté fii. mooy côté place de l'indépendance mhm. côté boobu. am na fu ñu koy lijjantee ay papiers yoy fournir la rek ak ben somboy fay fofu foofu lolou metti wul mais bon bu jexé xam nga nit mom des fois galancor meuna am. mën nga ñëw ci dëkk xalaat leen ne temps de jour nga fi def mu jeex ñëwee bon sóoraale nañ loolu quoi mm-hmm. moo tax sa passe avant moom fu mu jeexee bu la neexee heure bu jeexee mën nga dagaat mm-hmm. parce que ñi lay contrôler moom passe avant rek la xool ci yow bu ñu gisee ni passe avant bi mi ngi en cours mm-hmm. ñoom duñ la mës a jàpp ñu la mës jàpp dañ lay contrôler xool gis ni sa passe avant jeexul ñu jox la say kayit nga dem mm. léegi euh, au fait euh, aussi euh, papier oto boo xamante ne dafa nekk en règle oto boo xamante ne parce que tey am na ci oto yu bëri yoo xamante ne gars yi mën naa ni d'une part dafa am false boo xamante ne da ci am ci côté papier yi oto boobu noonu nga xam ne dafa am false ci côté papier nan nga ko mën a saytoo ba am ci lu leer ci côté boobu xam ne oto bii nga war a dugal sa xaalis wóor na. waaw hmm. comme ñun ñi nga xamante ni ñoo nekk ci oto yi des fois bu ñuy jënd oto boo xamante ni tey si dafa jënd oto dawal ko am ay problème mu jaay ma ko mhm. man xaw ma si mhm. mu ne ma kaay ma jaay la oto bi te prix bi moo ko jaayee abordable na mhm. damay jël carte gis bi dam service mi su ma demee dem secrétariat ñu vérifier ma carte gris bi xool ni carte gris bi te ah li nekk ci euh, carte grise bi li nekk ci euh, oto bi mi ngi ci carte grise bi mi ngi ci machine bi ba li nekk ci carte grise bi mi ngi ci machine bi mais mënuñu la justifier que ni oto bi baax na l' mooy li nekk ci carte grise bi mi ngi ci machine bi léegi nag domaine bi mooy sachet bi. Mhm. loolu tamit looy contrôler la service humide. Mhm. mooy bis booy dem di muté. Mhm. ñu ñëw xool sa sachet. gis ni sa sachet bi dañ ko laalaat wala dafa am luñ ci defaraat ak yooyu wala dañoo jëlaat. oto boo xamante ni oto bu méngoo oto boobu la. ñu def ko ci. bu boobaa bu ñëwee service mine service mine ciy teg loxo. moom dañ koy nangu dañ koy jàppee oto boo xamante ne euh, oto boobu mën naa ne existé kayit yi doxatul. voilà nañ ko ferraille bu yàgg. ñu jël oto boobu kayit moo fi nekk. def ko ci beneen oto ko ci beneen oto loolu bis bu ñëwee service mine. ñoom dañ ciy teg loxo. Mm. parce que dañuy xam ni oto bii. Mm. dañoo jël oto bu baax sasi bi lañ jël. Mm. teg ko ci beneen oto. loolu bu ñëwee moom dañ koy jàpp. dañuy téye sa oto soit ñu jël yàq kayit ñu jël récupérer numéro ñu jël carte grise bi. effacé ko ci machine bi. oto boobu dootul doxal définitive dëgg la waaye ñu doxantu ñëwaat xaar ñu dem xool seetaan suñu leçon di jour ñu dem seetaan ko leçon suñu leçon du jour te ñëwaat suñu biir plateau ñu doxantu daj ay Sen sorry

jóge quatrième rétrogradé war wàcc troisième jóge troisième rétrogradé wàcc deuxième ça veut dire que loolu noonu oto bi tey waroo pneu bi warul toj rek nga ne oto bi brusquement parce que tey choc yu bëri looloo koy gën a waral ñu si ñàkk seen bakkan ñu bëree bëri loolu moom moo leen lor parce que tey sa pneu bu tojee nga nekk en pleine vitesse boo dëggee frein rek oto bi instant boobu dafay sànn day day saaraan day saaraan wala oto bi mën na këpp instant boobu maari day taal kenn ñaanu ko yàlla sa bu tojee lu nga war a njëkk def bu fekkee cinquième nga nekkoon dangay ngay rétrogradé oto bi oto bi point mort nga koy njëkk fel boo felee point mort après nga rétrogradé da def point mort rek rétrogradé oto bi wàcc lu ñuy wax quatrième nga jugee quatrième dem troisième jugee troisième dem deuxième bu boobaa oto bi rétrograde boobu ngay rétrogradé mooy diisal oto bi ba tax oto bi dina mën a taxaw dootul amati force ak puissance boo xamante ne moom amoon na ko pour daw loolu moo lay mën a dimbali ba oto bi dina taxaw nga serré ba jekk wàcc xool nan ngay def boo wàccee jël sa pneu secours décoller say pneu lu ci war a tamit def encore triangle yi doo ko fàtte parce que ci kaw tali bu fekkee da nga fa paan triangle c'est très normal nga teg ko lu mu dee dee nga teg ko benn 3 mètres avant nga teg ko sa ginnaaw bu ko defee beneen oto bi topp sa ginnaaw dina xam ni am na ku paan fii nga boole ci lu ñuy wax signal détresse nga taalaale signal détresse muy clignoter. nga mëna décoller sa pneu monter sa pneu mëna tégg wat ci yoon quoi lool mom moy suñu leçon du jour tay bu sa pneu tojé première chose lool nga wara ñëk def pour gaay comprendre ko quoi ñu nekk ci kaw tali bi suñu mbokk chauffeur sék ñëpp quoi di leen ko baxé non la démé quoi. sen karo sori. ay mbokk yi gis ngeen ko lool moy suñu leçon du jour suñu leçon du jour la mbokk yi ba leen ci xel bo dawé daw daw ba sa pneu toj. gis nga nu nga war a def loolu mooy suñu leçon du jour ñu delluwaat ci waat ci biir waxtaan bi avancé waat waaye Mamadou euh, Mamadou Gueye waaw ñu ngi nekkoon ci côté fële côté carte grise bi ak euh, gars yi nu ñu ko war a doxalee comme toujours papier yi noonu la demee boo eggee au niveau du service des mines automatiquement dañuy dañ koy découvrir loolu noonu te oto bi boobaa da nga koy ñàkk. da nga koy ñàkk mm-hmm. waaw mooy euh, da nga koy ñàkk parce que <clears throat> boo jëlee sa oto dawal ba mu sonn dem gis oto boo xamante ni bon. Euh, maanaam lii lu yoon la lu yoon di tere la quoi. Mm-hmm. Mm-hmm. nga jënd ko yàq ko ci oto yàq defaat ko ci beneen oto. Mm-hmm. bis boo demee service bi moom jàppal ni sa oto moom mën nga ko ñaan bon bu ci cadre euh, comme exemple euh, oto yi nga xamante ni douane moo la koy jaay. comme oto yi nga xamante ni agent na. bu la ko jaayee moom danaa la nga génnee da nga koy génnee. mais yu si bëri gars yi dañ koy jaayaat ci dëkk yi. wala ñu dem di ko jënd ci région yi. bu ñëwee bon di ko def fii di ko di ko di ko di ko di ko di ko modifier ah, di ko changer mm-hmm. pour mën ko def ci seeni oto pour mm. mën continuer waat seen seen seen mm. seen oto quoi di ko dawale am na ñoo xamante ni tamit dañ ko def seen particulier bopp di ko mm-hmm. dawal mais am na ñoo xamante ni ci loolu la ñuy yëngu mm-hmm. ci liggéey boobu dañuy ñëw jënd oto ñëw defaraat yàq jaayaat fekk yow yaa ngi lor nit ki voilà yaa ngi loor nit ki parce que la nga ko jaay da ñëw yàq ko ci oto ñëw jox ko kooku dem jaayaat wala kooku dem jël dawal mu dem service yi mi am problème mutation ñu ne ko sa sasi bi da nga ko laal wala lii nangam sangam. Mm-hmm. Mm-hmm. yàqal ko gis nañ ci ay maintes fois ay ay problèmes yu ciy am. Mm-hmm. voilà may ñaan daal gars yi ñu prêter attention ci yooyu. ñu moytu ñu ñu wàññi. ñu bàyyi ko. respecté normes yi waaw waaw ñu def.

jar tamit ñu gën ci baye xel quoi jar ñu gën ci baye xel parce que auto bo xamantene yow tay buñ la ko jaay nga daw ko ci dëkk bi nekkul en règle douane tek ci loxo ding ci ñàkkaat lu ko ëpp mm-hmm. wala douane est-ce du ko jël sax après mën na ko defaral këyit sax mm-hmm. yobbu ko vente aux enchères mm-hmm. waaw mom lañuy wax vente aux enchères yi yobbu ko vente aux jaay moom ko jaay ah. tamit da la nga génnee douane carrément ah. loolu la lay wax parce que barki dem rek lañ doon jaay seen vente aux enchères euh, jam ñaajo mais buñ la jaay auto bu aaja dañ na la nga génnee ko dëkk bi ko dëkk bi ñoom loolu lañ la ah wax waaw génnee ko dëkk bi mooy norme bi moom moy norme bi quoi oui ah Mamadou Sy waaw Mamadou si waaw ñu dugg suñu biir waxtaan seen carrosserie yi euh, Mamadou si euh, oto yi souvent seen parking ndax ci côté clientèle bi du ngeen am jafe-jafeem da ngeen koy jàngatale ça veut dire que nga jaay client oto mu dem essayé ba mu doy ko nga ñëw nga xool mu ànd ak kiyam xool ba mu doy ko dem dawal deux jours mu ñëw ne oto bi damay gis ni. làmp ceg bi day tàkk wala côté lii dama ciy sentir lii wala ay détails ndax côté boobu du ngeen koy faral di am. am pagaille. am pagaille <laughs> loolu kay boobu yow naa tout récemment rek dund nañ ci lu mel noonu. suñ benn waay ñuy jaay ko benn oto. Mhm. mu dawal oto bi 15 jours. 15 mhm. jours. Mhm. la dawal oto bi essayé ba ne baax na dawal 15 jours. lakk boîte bi. xoolal loolu. lu mu lakkee boîte bu ñëwaat. taxaw temm na oto bi waxuñ ko woon li ci nekk nangam nangam dañoo mujj. jëlaat oto bi récupérer oto bi pour bañ coow. Mhm. récupérer oto bi parce que dafa am loo xam ne day yàq day yàq sa réputation. Mhm. parce que nit tamit bu fekkee ne dañ ñëw ñu jaay la deuxième main. xam nga mhm. yow jëndoo oto bu ah. bees. jëndoo bu bees deuxième main nga jënd. deuxième main ku nekk xam na li ci nekk. nga ñëw gis oto bi bëgg ko. jënd ko essayé ne baax na bëgg nga. dawal oto bi 15 jours yàlla nga dawal ko ci biir dëkk bi dox sa yitte. war a voyager jëm tubaa oto bi paan. oto bi nga sofe oto bi. sofe oto bi. oto yooyu seen boîte yi day synchroniser ak ndox. Mhm. nga dawal ko oto bi sofe bu sofee rek day répercuté wu ci boîte bi ci oto bi boîte bi lakk. lakk mhm. mënatul dem da koo yab ci oto indilaat ñu ko. Oh. ñu wax mu indi fi coow lu bëree bëri mhm. bëri ku nekk jàpp ci intervention yi bëri. xam nga. bon ñu dañoo mujj. delloo ko jëlaat oto bi. defaat ci ay neuf cent mille huit cent mille. Oh. serré defaat ci huit cent mille mujj wanteer oto bi. tey boo ko deful mu nekk coow loo xamante ni bii yéeg ak wàcc la boo xamante ne bii tamit dañ koy jànkoonteel mm-hmm. toujours toujours dañuy mm-hmm. jànkoonteel lool mm-hmm. da ngay jaay nit oto mu dem naan lampu cek lampe ceeg bi mi ngi tàkk mhm. lii ngi tàkk lii ngi tàkk mais oto bala koy jënd mhm. da ngay indi sa mécanicien mhm. mu xoolal la ba ne parce que comme jaaykat bi moom mënu la wax lu doy parce que lu mu la wax da ngay wax ne dafa bëgg a jaay yow yaa war a sa mécanicien mu doy la ko mu ne la ah oto bi de lii ak lii moo ci nekk li ko jëndee da nga defar lii defar lii lii mesan na c'est pas grave bu mu nga jënd bi da ngay jënd bi nga mais soo ko deful ñëw jënd oto bi xamoo nga ñëw jënd oto bi ñu wax la li ci nekk nga dawal xool ne baax nga bëgg nga wane sa bopp ne xam nga oto te xamoo oto mm-hmm. jël oto bi dem ba mu neex la nga ñëw gis ci ay faay ñëwaat mm-hmm. Mm-hmm. oto bi mën nañ la ko jox tout neuf tout keleñ nga ñëw dawal ko dugal ko ci suuf forcé ko wala nga oto yi manuel kii automatique yi dafa am ay séquentiel dafa am ay plus mm-hmm. moyenne. Mm-hmm. nga dawal ko séquentiel. Mm-hmm. boîte bi am problème nga ñëw ne oto bi boîte bi day sauté wala day def li fekk yow yaa ko def. ko que xamoo li ngay dawal lu munoo dawal. da ngay mujj obligé waat retour waat ci parking bi la ko jaay sëf ko parking bi. te bi ñu la koy jox lépp ngi sélecté normal. jafe-jafe yooyu dañuy jànkonte ak moom. mais loolu yëpp. li ma waxoon njëlbeen rek. bi moo koy moo koy indi. des nga am sa nit. tay di sammu sa kóllëre rek mom mhm. mais mom du sammu lol limi gis alal ji mhm. te auto machine la rek mhm. mënuñ la ko jox legi auto bes tak nga génne ko am défaut de fabrication mënuñ la jox auto bu ñu defar normal nga génne ko dawal ko ñaari fan yalla dogal mu tomber paan ci solo ak ci ko koy dawal aussi voilà ak ci ko koy dawal parce que gaay bari bari bari aussi tamit da ngay gis ko xamante day bëgg auto gis ni xaalisam maté nako ko te fekk mom maîtrise wul oto xam nga auto toujours lu gaay di wax manam bokoy dawal da fay fekk nga xam ko jarna sax nga jang ko ba xam ko muy lan nga mëna a déglu régime xam moment bu ko war a dawal xam boîte automatique nan nga ko war a dawalee et tout parce que ngeen ko koy jaay am na ci ñoo xamante sax dañuy ànd ak seen mécanicien ñëw jënd vérifier xool gis lépp mu doy leen ñu jënd ko dem quelques jours ñu ñëwaat naan la oto bi dama ciy dégg lii ak lii ak lii mais loolu noonu ànd naag technicien ko xamante ne mhm. mécanicien la moom moo ñëw xoolal ko. Mhm. ba ñu xool ba mu doy leen ngeen def euh, des papier beeg yëpp mhm. ku ci nekk dem. je pense que loolu bu paanee moom moo war a doon le perdant. waaw pas vous quoi. mais ñoom duñ def lool. dañuy retourner rek daal na la oto bi dafa amoon problème xam nga ko waxoo ma ko. des fois nga jox nit mécanicien sa oto automatique dafa am lu ñu koy dawale da koy jox sa sa mécanicien mu jóg rek gëdd ko. te du yoon. même bu taxawee sur place sax boo ko accéléré mënul mënul mënul kii. boîte yi ay électronique la électronique la la. mémoire la mhm. bu sonnee bu mhm. sonnee mémoire am day day day day day day day perturbé dootu xamante fan la war a def ak lu warul def mhm. day dem ci électronique bi oto bi nga xam ne da nga jóg raay ko muy développé dafa am temps boo koy raay mu développé vitesse bi di sélecté étape par étape parce que du manuel bu doon manuel yaay xëcc ba fu la neex nga redégrade automatique amul lool bu la ko joxee nga jóg am na ñoo xam ne ay affaire gasteur la ñuy wane. Mm-hmm. jóg oto bi gëdd ko rek. premier bi balaa muy kii sonal nga ko. mémoire bi duggante noonu rek. Mm-hmm. day dof. Mm-hmm. mu commencé am problème. boobaa yow da ngay ñëw. au lieu nga ne ah lii kat ma koy jox deful dara mais da ngay retourné waat ci parking bi ne ko kii moo ma ko joxoon nii la defoon parce que man bii ma koy jox nii nangam nangam. sentiroo na nangam war ko sentiroo woon dara. pour rek ci taat sa alal jël affaire bi delloo ko borom moom mu mu moom mu féetee. Mhm. gaspillage. kon ñun lu ngeen di dund. lu ñuy dund lu métti la ci kii bi métti euh, na ah. côté vente bi. côté location location bi ñu doon wax sànq. Mhm. des fois da nit. Mhm. mu dem def crime ci sa oto. wala mu def bool loolu ah. loolu aussi waaw loolu ay risques la yoo xam ne. te aussi waaw loolu tamit doy na waar te oto bi aussi tamit day bloqué wu. oto boobu balaa nga koy jot aussi tamit. voilà metti nga topp procédure dem tribunal yeeg ci greffier yi. fii wàcc balaa nga jotaat sa oto moom war nañu defar contrat bi nag. wala ëllëg tey bu day doon lu metti oto defal ko contrat bi rek. Mhm. bu ñëwee. Mhm. lu mun a am bu ñëwee nga génne sa contrat moo leen di àtte. Mhm. kii kat humain la nit la comme man. responsable na ñëw na lu yoon oto bi wax nañ ko condition yu remplir na ko. jox nañ ko oto bi fay na. contrat bi ñu ko def nii. kañ la def vol bi ñu ne temps la ko jour tel la ko def. guddi nangam. fan la ko defee ñu ne nangam. contrat bi ñu xool contrat bi. mu wane ne fa ko defee ak fi mu ko defee contrat bi jiitu. boobaa dañuy xam ne kii. yoonam nekku ci. dafay def business am. Mm-hmm. nit ñëw luye mu luye ko. Mm-hmm. koy dem nak di ci def leneen. mais mais am ngeen possibilité tay par exemple ngeen loué nit auto am nga tay gaay aussi da ngay gis ku loué auto nga na la non fi la yam ci ville bi am nga auto buy génn. région ak bu yem ci ville bi bokkuñu prix. yenn saa yi nga nit oto. mu war a des fii génn ak sa oto ne mu ngi ne mu ngi dem Tamba. wala mu ngi dem Touba man luwee naa sama oto. waaw te te ki koy ki koy ki koy mhm. oto bi Kédougou lay dem. Mhm. du ma ko luwee ma ko luwee du ma ko luwee mhm. dem mu ko defee bi mu ñëwee oto bi dafa am problème boîte. man maa mujj récupéré sama oto. dem defaraat sama boîte tegaat moom dara fekk day day doy waar. voilà léegi instant instant bii nii am na kii boo xamante bi tey neex na trop instant bii nag xam nga lépp mate ko gars yi ñu may signaler fii nii na temps bi jeex na régie mhm. waaw léegi xam nga waaw vraiment moom waxtaan waxtaan bi neex na trop yaatu na bëgguñu ko fi woon yamale mais comme temps bi mat na Mamadou Mamadou Sy waaw ñu bàyyi la nga tàggatoo. waaw waaw li ñuy tàggatoo jox toujours. Mhm. dañu nekk ndaw. Mhm. bëgg dëkk bi. Mhm. amuñu fenn fu dul dëkk bi. di gërëm suñu ñaari waajur yi nga xam ne ci lañ waroon a njëkkee. parce que lépp tey duñ mel ñoom la ñooñu. jël tànnal ñu yaay yu baax mhm. jël ñu teg ñu ci ay yoon yoonu siraatul mustaqim mhm. bañ mën a taxaw tey ay seen di ñu invité ñuy wax di am di ànd ak suñu xel di mhm. di wax lu nit mën a dégg kon ñooñu dañ leen di ameel njukkal ñaanal yàlla seddal seen ay yax ci barsàq gën a tëdd ñaanal ko mbooleem waajur yi yëpp di ñaanal dëkk bi jàmm surtout dëkk bi yàlla na ci yàlla def jaam man sama wax du bëri man mm-hmm. ñaari kii rek laa am mm-hmm. dëkk bi daal mm-hmm. nañ ko apaiser def ci jàmm bàyyi taal gi ñuy taal faral ak sa nit waxal li nga xamante ne bi moo la wóor bul far ba wax lu la wóorut parce que ngay waxal lu la wóorut joxu la dépense joxu la añ joxu la reer jëndu la ordonnance yaa koy ñefeel sa bopp kon kooku war nga am matière bu toll ni sàmm li nga xam ne mooy alalu dëkk bi. c'est très important nañ bàyyi bu dara xewee ñuy toj matériel dëkk bi. Mm-hmm. te xamuñ ne lépp ci suñ kaw lay këpp. ñun ñun ñun li ñuy dund ñoo koy teg suñ bopp. Mm-hmm. parce que dangay wax loo xam ne fekkee woo ko. Mm-hmm. wóoru la amoo ci benn certitude. nga ci wax bay bay bay taabal te amoo ci benn certitude. yaa ngi taal ay. Mhm. yaa ngi taal ay mhm. na ñu yàlla musal daal amiin amiin képp kuy wax na nga wax lu la wóor amiin amiin kuy fekk ab diggante nga wax ca lu rafet rafetal ko amiin amiin allah daal kontaan nañ ci mhm. euh, Proxi TV bon ñu ngi leen di ñaanal tamit yàlla yóbbu ko ba gën a nekk seen yu mag a mag a mag lu ndaw lu mel nii moom la réew mi soxla lu mel nii loolu la réew mi soxla nañu tàggat xale yi ci métier yar leen li ñuy yàq suñu alal la état moom yàqal de. Mhm. mais bu ñëwee rek mu dugal ci impôt. dugal ci ceeb buy jaar ñoo koy ñoo koy fayaat courant bi ñoo koy fayaat. ñoo koy fayaat léegi ñun nañ takk suñu ay morsuy xonk mhm. Abdoulaye Wade jàngaloon na ko nit ñi. Mhm. takkal sa morsuy xonk ñëw taxaw wane na lii moom a naqari li ngay wax tamit nga seet ci yàlla. bu faral nit ba ngay wax loo xamante ni boo tëddee ci sa bàmmeel dañ ko laajaat ñun daal loolu lañ amoon lu ñuy euh, lu ñuy tàggatooyee di ñaan parce euh, que parking automobile bi ko sëñ Fallou boobu yàlla def ko mu nekk parking boo xamante ne bii mooy gën a mage ci parking yi gën teg ci yoon defal ko nag boolem parking yi yëpp képp ku yëngu dara daal mm-hmm. pour loolu yóbbu sa njaboot mm-hmm. yàlla na ko am ci lu lew am ko ci lu jub yàlla def ci barke daal loolu daal la ñuy ñaan yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi kontaan baax merci beaucoup si loolu rafet na si bu ñu fàtte ci ñaan nag fasaale waaw Guèye Mamadou Guèye Guèye business waaw ñu lay siyaar waxtaan bi yaatu na gis nga instant yi ñu woon sax jéxal émission bi parce que lu fi feeñ lepp njariñ la lepp xam-xam la vraiment wone ngeen ni aussi tamit ñu dynamique ngeen te li ngeen ni yëngu aussi tamit am ngeen ci xam-xam te tamit yeen ngi ci dox vraiment di ci bay seen waar ci lu mat seuk waaw loolu looy tàggatoo. waaw man euh, lu may tagato moy di ñaan état mu dimbali ni ñun ñi nga xamanteni ño nekk ci milieu auto yi. Hmm. dimbali bi mu ñuy dimbali moy mu wàññil ñu dédouanement bi cher na. Hmm. xam nga domaine impôts yi ñuy fay ak yooyu yëpp. Mhm. dafa cher. Mhm. yooyu yëpp dañuy ñaan bu dee état mi ñuy dégg. mu mhm. dimbali ñu ci côté boobu côté surtout dédouanement bi. mu jàppale ñu ci bu baax a baax. parce que tamit oto Europe ak oto Amérique bokkul. oto Europe moo gën a yomb dédouanement. oto Amérique moo gën a cher. xam nga côté boobu tamit bëgg nañ mu dimbali ñu lool lool ba affaire yi mën a oyof bu baax a baax. bon di gërëm euh, samay staff yi nga xamante ni ñoom laay liggéeyal. xam nga di gërëm tamit. Euh, sama benn xarit bu mhm. tudd Baro mhm. moom tamit mi ngi may jàppale ci côté liggéey boobu noonu mhm. tamit mi ngi may jàppale bu baax a baax a baax moom dama koy gërëm bu baax bon di di ñaan tamit Sénégal xam nga yàlla def fi jàmm tamit yàlla def fi jàmm jàmm joo xamante ni jàmm ju sax lay doon di gërëm samay waajur samay parents di gërëm sama mag bu jigéen bi nga xamante ni moom moom laa wax yow yaay sama gestionnaire yow yaay sama comptable lépp sama bien yëpp moo ko yor moom rek laa ci wóolu muy mus liggéey di gërëm tamit sama mag bu bu góor sama grand frère muy galas mm-hmm. moom mi ngi Espagne ngi di jàpp ci affaire yi moom tamit mm-hmm. voilà di gërëm sama soxna moom tamit ak samay xarit samay àndandoo ñoom ñëpp maa ngi leen di ziar di leen bëggee macha allah waaye loolu rafet na loolu rafet na ci suñu plateau bu yaanj bi amoon suñu invité yi gis ngeen waxtaan bi ci lu ñu dem vraiment waxtaan nañ ci waxtaan bi yaatu xam-xam feeñ na fi njariñ feeñ na ci Euh, gars yi aussi tamit di leen wax ni aussi tamit nañ leen gën a bàyyi xel aussi tamit ci émission seen carrosserie parce que émission boo xamante ne la tey lépp loo xamante ne tey nit ki mu ngi ciy yëngu tey ci domaine automobile dinañ ko waxtaanee fii faram fàcce ko ci yeneen domaine ak yeneen ak yeneen euh, maa ngi nuy euh, ku ñuy wax président Modou Koundoul maa ngi koy nuy di ko char di nuy sama yaay Fat Diop Pape Abdou Fall maa ngi koy char ci lu baree bari di nuy sama soxna ak samay bébé ñoom Ismaïla Khadija Pape Abdou di nuy Momi Thiam maa leen i siyaar yéen ñëpp di leen jox euh, dig daje ci beneen numéro jaa ngeen jëf one love yëpp seen carrosserie yaa ngi koy amee fii ci Proxi seen carrosserie télé bu la jégal di la wan sa seen carrosserie saa su ne ñu ànd ci ak ba seen karo sori waxal waay dégguma dégguma seen karo sori yàgg nañ ma wax ni xam nga du sori ma bañ dafa làkku rek legi am nañu karo sori yoon nañu teg ko ci code bi rek bab sa ko yëngal jëlal ma wan la yow job bi ñu savouré discipline si sa